wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kaashifi l-ghumma wa shafii'i l-umma sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxaabatihi al-a'imma wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi l-qiyaama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 ci seen tafsirul quran bi ngeen baaxoo am bët bu set ci waxtu wi ànd ci ak leer ak jamono rajo télévision bu wal fajri aayaat yi xale bi doon jàng yàlla moo ci dëfal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal comme xëttuloo sharia rek bul ragal na sa fit dal loo nekk comme ànd nga ceeg yàlla bu ci nit ñu bon ñu àndut ak yow tamit ànd gi nga ànd ak yàlla doy na takk gii nga takk Zeynabu te yow sax takkoo ko mais ñun ñoo la ko may dama lay yëgal ne lu ma neex la man yàlla maa ko dogal te dogaloon naa ko ci ësal laata dara di xew kon nag loola kom neex na ma man yow bul seet ñu bon ñi mu naqari ña ca nar a dem safara tamit ba cay wax wax ju ñaaw mënoo ca dara soo yeboo rek nga mucc ci nga bàyyi leen ku war a dem safara mënoo ci moom dara waaye ña ca war a dem aljana danañ ko gisee gis bu rafet dañ ca wax tamit wax ju rafet ña ca war a dem safara danañ ko gisee gis bu ñaaw ne takk na soxnaay doomam danañ ca wax tamit wax ju ñaaw gisee ko gisin wu ñaaw ba loolu yóbbu leen safara mu ne ko tamit takk soxna yii nga takk muy yulli mu nga am fukki soxna ak benn loolu bum tax maanaam sa fit xaw a rëcci dogalab yàlla la laata mu lay bind la yoonal ne foog danga am fukki soxna ak benn te tamit yoonu yàlla wun tracé la yonent ya la jiitu woon jaaroon nañ ci daawuda moo la jiitu woon moo la ëppooni soxna amoon na téeméeri soxna ak ñetti téeméeri taara suleymaan moo la jiitu woon moo la soxna amoon na juróom ñaat téeméeri soxna ak juróom-ñetti téeméeri taara yow na fukki soxna ak benn rek nga am su boobaa kon te soxna yim takk lépp yonantu bi lu tax damm maanaam jàng damm damm ko tax a jóg lu damm nar a yàqu mu jàng ko ak tàllal politique gu diine ba nga xam ne diine ji dana mën a yaatu yegg ci giir yëpp lii rek a tax koo xam ne boo seetee soxna yim takk muy fukk ak benn fukk yëpp ay màgget lañ xadijatu muy aawaam bu ñu koy takk lu am ñeen fukki at moom mi koy takk lu am ñaar fukki at ak juróom fekk loola tamit xadijatu suul na ñaari jëkkër am am ci jëkkër ju ne doom kooka su fekkoon ne li eh, yahud yi wax lu bon loola moo ko taxoon a jóg buy takki day dem takki jànq waaye xoolal ki mu aawaloo matee na ko fukki magee na ko fukki at ak juróom jigéen bu la magee fukki at ak juróom mën na laa jur ki ci tegu muy sawdatu ñii ne Aïchatu dañoo jege ba ñoom ñaar xamuñ kan moo ci jiitu boroom xam-xam yi mujj wax ne daal sawdatu moom la njëkk a maanaam Aïcha la njëkk a takk waaye sawdatu moo njëkk a sëy si lu ci mun di am sawdatu mi màgget la moo xam ne dem na sax ba ayem mënatut koo rafetati mënatut koo taxawalati mënatut koo rafetal ba mujj yonent bi bëgg koo jéggal ngir màggataay ga mu ne ko man daal doy na ma ñu limaa lema ci sa soxna yi ëllëg yowmal qiyaam sama aye may naa ko Aïcha xam nga kooko kon màgget la boo jëlee ku mel ni maanaam xafsatu doomi omar la jëkkëram génn àdduna ca xare ba mu sonn amul fu mu wér gannaawam yonentu bi bëgg a maanaam jàng damm-damm tax mu takk ko ku mel ni ramlatu ñi ko gën a bañ ci kaw suuf abu sufyaan ci la bokk doomi abi sufyaan dem bëgg yonentu bi ba dugg ci lislaam ànd ak jëkkëram ñu dem gàddaay yi fële ca Éthiopie yàlla dogal dëkk ba neex kooka mujj murtat soppeeku nekk ci beneen diine kooka kon baayam génnee na ko parce que ba yonantu bi ba baayam jubóowut ak yonantu bi doom ji dem ànd ak yonantu bi kooka bu ko yonantu bi sa seetaanee musiba am yonantu bi teralee ko takk ko ngir defal ko loola tax na tax ba ba abi sufyaan mujj gi dugg na ci diine ji kon boo doon seet soxnaam yëpp kaa bu mel nii rek mooy tax mu takk leen maanaam politique ci yaatal diine ci biir xabaa yi ak dag maanaam damm-damm bu doy waar ci mbokk ci jege ñaale mu mujj di ko jàng ñaar yi rek la waaye ñëpp ay jeeg lañu dund na ba génn àdduna benn jànq la mos a takk mooy sayyidatuna Aïcha lu ko waral ni Aboubacar mel ci yonantu bi fu ñu tuddee Aboubacar tudd yonantu bi fu ñu tuddee yonantu bi tudd Aboubacar mu nekk ki ko njëkk a gëm kooka dëgg-dëgg liy rafetal àndoo mooy seen deret jaxasoo loolu dana am lu mu lu ci Aboubacar ñëpp ñi ko doon xas tamit ak li muy sonn ci yonantu bi duñu amati luñ koy xas xam ne njabootam ci biir kër yonantu bi loolu maanaam mu dem takk sayyidatuna Aïcha mu noonu tamit la jëlee ku mel ni Omar mu takk doomam ndax ñoom ñaar ñoo ko gën a jege mu jël yeneen ñaar nga ci tegu muy Ousmane ak Aliyu ñoom ñaar kenn ku ne mu may la doomam kenn du yonantu bi ci rafetal àndoo ñeent ko a gën a jege Aboubacar Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliyu mu jël ñaar ñi di Seydina Aboubacar ak Seydina Omar may maanaam takk seeni doom jël ñaar ñi lay Seydina Ousmane Seydina Aliyu mu may leen doomam kooku àndoo gu rafet moo fay nekk deret bu xasee jaxasoo rek jàmm rek dafay ne kon nag dalalal sa xel wax yu ñaaw yi bu mu la bu maanaam bu mu la déranger nit ñi kenn mënta mucc ci ñoom su ko defee kon nag moom la yàlla di wax ci aaya ji di ko ci dalal ne ko nag bul ragal dara euh, gaa yi la jiitu woon sa moromi yonent yi ñoo la ëpp ay soxna moo tax mu ne ko maakaana nekkut ala nabi ci yonent bi min xarajin ci tiis tiis min ji dafa dolleeku waaye maakaana ala nabi xarajun xarajun jooju mooy ismu maay mooy ismu kaana ji ala nabi jaar jeeg ma jurul nekkee barabu nasab di xabari kaana mu jël minu saa yi dolli ko ci moo tax mu ne maa kaana nekkut ala nabi ci yonantu bi min xarajin ci xat-xat fii maa ci la nga xam ne farada daga daganal na ko laahu yàlla lëhoo ñeel ko te mooy takk soxla si di Saynabu sunnatallaahi mu mel ni sunnay yàlla maanaam man soobun bi isqaatil xaafidi ka sunnatillaahi la woon fi lëfina ci nga xam ne xalaw jiitu woon na ñun xablu ci njëkk daawuda la ëpp soxna ak suleymaan wa kaana nekk na amrullaahi mbiram yàlla xadaran di dogal maqduuran bu duñu bu di bu ñu wëyal dogalu yàlla bu ñuy wëyal la mënoo ci dara allazina ci ñi nga xam ne yu baliquna danañu jotal risalaat la risalatillaahi leetari yàlla yi wa yaxshawnahu danañu ragal yàlla wala yaxshawna te ragaluñu ahadan kenn illa laa ndere yàlla faale wuñu woon nit ñi kon bul faale nit ñi wa kafa doy na billaahi ci yàlla xasiban ci kon sukkandikul ci yàlla te bàyyi nit ñi ragal nag yàlla ko bindee nit loo am am maqaama ci yàlla léeg-léeg ragal ñëw gaar la soo yeboo di wëlli soo yeboo di président soo yeboo maanaam dib yonantu léeg rek ragal gaar la ragal ragal yàllaa ko mooñee nit Moussa yonantoob yàlla la waaye jaan rek Moussa ragal na ko bañ sànnee jaan ja rek Moussa wan ko gannaaw daw tey ba léegi buñ la jaan jaa ngeen ñu bari daw yàlla ne ko laa taxaf innaka innaka antal a'la yow yaay kii kawe toon toogal ba tey tamit yonentu yàlla euh, maanaam yaquba ragaloon na bi gaa yi demee sànki doomam ja yuusufa lu mu wax wa axaafu an yakuluhu zibu dama ragal tilli ya lekk ko yonentu bi tamit ragal gaar na ko jamono ji nga xamee ne ni sécurité bi demee wut noonu te ñu ko gëm bëriwut te yéeféer yi bon nañu bëri ay pexe ba mu mujj ut ut ay garde ngeen ñu koy garde ba mujj yàlla wàccee wallahu yaasimuka min annaas yàlla lay musal nit ñi bu ragale ci dara na la ubbi xayma bi kon ragal yàllaa ko moo ñaaleeg nit euh, waaye li ca bon nag mooy sax ca rek nag moo bon wala ragal ñëw gaar la nga wax ca wala nga jëf ca loo xam ne bu ca bàyyeekoo mu nekk trace ñi la koy xoolee wala ñi la koy waxee loolu moo bon waaye ñi tamit ko ci ragal gaar yaa ngi ànd ak sa sago kon ada maanaam euh, kii euh, laa taxaf innaka antal ala ànd naag sagoom wa axaafu an yakuluhu dhibu ànd naag sagoom wallahu yaasimuka min annaasi yëpp tamit ànd naag sagoom ayaat yi tegu ci yàllaa ngi wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam takkul jabari doomam waaye soxnaay kenn ci aw xeetam la takk ndax yonentu bi fekkoon ne mooy bàyyi xeet wi yépp comme ni suñu bàyyi nekkee suñ bàyyi kon moom doomam yépp kenn du leen mën a takkati ndax dañuy nekk suñuy mag ñuy nekk suñuy rakk ca ñi leen mag li ko naan àll yu dana dem takk Fatima kon ñooy bokk ndey ak baay ñooy bokk baay li konoon Ousmane dana dem di takk maanaam euh, ñaar ñëlee muy takk ci ñaari doomi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu lépp muy ummu kulsum ak ruqiyatu kon maanaam dafa bëgg wax ne yaay soxnaa yonantu bi ñooy seen yaay waaye baay waaye yonantu bi duwut seen baay mu indi nag turam wi indi turam wi fii ne maa kaana muhammadun aba ahadi min rijaalikum boo jëlee tur wi mënta ñàkk ñëw ci alquran ndax yonantu bi xam tur wi ba dafa bokk ci mandargay gëm yàlla mandargay gëm yàlla bokk na ci xam turu yonantu bi ndax kuy tuub kuy kuy tuub dugg ci diina ji da nga jaar ca turoo looy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan kon boo xamutoon muhammad ñëwu ci alquran foo koy moo tax yàlla indi turam yi ñeenti yoon ci alquran nuzila ala muhammadin am na muhammadu rasulullahi am na maakaana muhammadun aba ahadim rijaliku walakin rasulullahi tamit am na ñeenti yoon turu yonantu bi dana ñëw ci alquran waaye li mu wutee yeneen yonantu yi yonent bi fu turam ñëwee ci alquran rek bu tur bay ñëw rek garaat ba tegu ca mu ne muhammadu ñu ne lan la mu ne rasulullahi maa kaana muhammadun lan la mu ne walakin rasulullahi balaa yi jay jeex musila ala muhammadin ba muy jeex tamit garaat ba ñëw ñeneen ñi ci des nag yaa Moussa ngay gis garaat du ñëw yaa Noox ngay gis yaa Ibrahim seen tur yi ñëw noonu fekk du ànd ak garaat waaye yonent bi turu boppam fu mu ñëwee rek garaat ba moo cay tegu loolu ngir fonk ko yàlla fonk turam wi am solo moom ci boppam wax na ne képp ku am doom tuddee ma ko ngir sopp ma rek ak barkeelu ci sama tur wi sa doom jeeg waajur wi ma ko tuddee ñoom ñaar ñëpp ëllëg aljana tax kon bu ngeen amee doom tuddee ko yonantu bi baax na sallallahu alayhi wa sallam wax na tamit ne yonantu mu ne ku am doom sa soxla ëmb rek nga jaayantee yàlla ne buy juddu ma tuddee ko Seydina Muhammad yàlla dana la dimbale ba mu juddu te dana nekk góor ñaareel bi tamit koo xam ne sa soxna lu mu am mu yàqu ëmb bu mu ëmb mu yàqu mu ëmb rek nga jaayanteeg yàlla ne Seydina Muhammad laa koy tuddee ëmb boobu dana ci mucc bu yàqoo nag seetaatal sa bopp yonentu fa mu newoon ma nga fa waaye yow boo newul fa nga newoon tamit mbir ma yàqu waaw loolu tamit jar na cee bàyyi xel kon yonentu bi turam am na solo xam ko baax na di ko tuddee suñuy doom baax na yonentu baa ngi wax ci beneen hadis ne bépp kër guy turu yonentu bi di yeewoo ñu ko fay tudd kër ga barke dana fa wàcc kër ga dépense dana fa yomb ñam dana fa yomb moo tax ab jullit comme yonentoo gën a yell ci ñun annabiyu awlaa bil mu'minin soo amee taaw muy góor tuddee ko sayyiduna muhammad ndax moo ëpp doole ci yow moo ëpp doole sa baay ci yow moo doole sa sëriñ ci yow su fekkee jigéen la nga tuddee ko yaayam sayyidatuna amina wala nga tuddee ko kenn ki njabootam sayyidatuna fatima wala sayyidatuna xadija ak ñu mel noona wala aïcha soo amaatee doom nag muy góor gannaaw yonentu bi sa baay ëpp doole ci yow tuddee ko sa baay soo amaatee keneen nag nga door a seet say sëriñ wala say xarit ak yeneen yi ci tegu waaye daal sa première doom jaayante la yàlla nga tuddee ko Seydina Muhammad moom moomu mu ñëw ubbi sa kër gi yonentu kër gu mu ubbi dana barke lu ca tegu lu ne mën na caa mën na caa ne waaye tudd sa am say doom seeti say xarit seeti ñoo xam ne boo leen tuddee sa doom ñu jox la enveloppe loolu tamit charia bëggul ko yonentoo la enveloppe yonentu moo ëpp doole moo ëpp doole waaye ba nga def la siisi siise ba defoon dem ba am ngénteel taaw ca këri goroom ya te ndey saanam dañ bañ dem bañ na suba la amagul xar mu ne pexe rek moo fi des sol daal lam seeti ilimaan ne ko yow laay tuddee doom ji kooku yëkkati enveloppe bu mag jox ko mu dem seeti borom dëkk yow laay tuddee doom ji kooku yëkkati saakoob dugub jox ko mu dem seeti maanaam président wu daayira ba yow laay tuddee doom ji kooko jox ko loo xam ne mën naa laax-laax ya ba yewi géwél ya ilimaan ja noddu ne ko ku ma koy tuddee nag mu ne ko ah noddaatal dafa xaw a gaaw ba mu noddaatee ni xam ko ma koy tuddee mu ko tuddee ko gaañi siise gaañi moom ilimaan a ngi ci borom dëkk a ngi ci président daayira baa ngi ci président commune rural baa ngi ci gaañi moom bàyyiwul kenn kon suñu tur yi nañ koy tuddee Seydunaa Muhammad soxnay doom yi ndax yàlla wàccee barke te gis nga tuddee yonent bi doom am na doole am na waajoo xam ne ci banu Israël la bokkoon am na téeméeri at lépp ci mooy yàlla la ko jeexal ba mu demee ba de dañ ko mujj sànni ca sën ba jàpp ne ku bon la te dafa guddi rek yàlla wax ñu Moussa ne ko demal nga defar ko suturaal ko kii nit ku baax la aljaana la jëm mu ne ko nit ñëpp lu bon lañ seede ci moom kenn xamut ci moom lu baax man mi sax xawma ci moom lu baax mu ne ko ku baax la musta jàng tawreet fekk ci tawreet turu ahmad mu yonent yàlla muhammad lu dul ba jël na ko fóon ko door a la muy jàng kon ndeke gis ci téere bi turu muhammad fóon ko sax wala nga gis fuñ ko bind nga jël ko for ko toppatoo ko loolu rek mën na laa sowee ëllëg ci aljana kon loolu jar na bàyyi xel kon turu yonent bi kenn waru koo jël di ko bind ci oto te mu bëri léegi lool boo ko bindee ci oto oto bi dugg ci sobe sobe ca dal sa yaa ngi yaa ngi yaa yaa ngi doxa dal tur ak yeneen ak yeneen yu ciy nekk ak yeneen waroo koo jël di ko bind ci miir ndax xamoo fu miir bay mujj yàlla ji mun naa taw miir ba mujj daanu dugg ci sobe si toroxal nga turu yonent bi kon yooyu yëpp dañuy war a xam fan lañ koy def waaye boo ko ci deful ba loolu fekk la ci dañ see di jëlee bàkkaar tur bii dañ ko war a xormaal moo tax mu ne maa kaana nekkut muhammadun muhammad aba ahadin di bàyyi kenn min rijaalikum ci seen góor ñi demil di dellu ci saxaba yi yéen saxaba yi yéen a ngi nii yonent bi jurul ci kenn kon ku ci génn àdduna mën naa takk sa soxna ñu ne lu tax mu ne min rijaalikum ci seen góor ñi te doomam yaa ngi nii xanaa kon jurul doomam yi ñu ne akay ah rajulu bala ko araba wax nit rek day fekk kooka nekk ku mësoor doomam yi ñett lañu ba ñuy mësoor ñoom ñëpp génn nañ àdduna muy Qasum Abdullahi Ibrahim kii mu ngi génn àdduna presque ñaari atam yu teg ay weer kii ngi génn àdduna fukki weer ak juróom-benn kii ngi génn àdduna ba muy nàmp moom daal ba muy génn àdduna moom yonant bi déggatul ku koy wax bàyyi ku nekk góor ndax bu déggoon ku koy wax bàyyi ku nekk góor yonent bi génn àdduna bàyyi ko fi kooka mësoor kooka day nekk kooka day nekkat ab ndax loolu moo doon mooy aada yàlla soo nekkee ab yonentu génn àdduna baax sa doom yàlla def ko yonentu comme ni Ibrahima yàlla jël doomam isxaaqa muy yonantu mu génn àdduna yàlla jël yaquba muy doomam mu génn àdduna di yonantu mu génn àdduna bàyyi fi yuusufa muy yonantu su ko defee nag yàlla nag bëgg yonantu yi jeexee ci yonantu bi moo waral yonantu bi ba muy génn àdduna déggul ku koy wax bàyyi ku nekk góor te jigéen nag bu nekk yonantu moo tax nag mu nekkoon seen góor ñi ngeen wax ku ci yonantu bi jur amu fi ndax bu leen fi juróom bu leen bàyyee gannaaw rek ngeen nekk di yonantu moo tax mu ne maa maakaana nekkut muhammadun muhammad aba ahadin di bàyyi kenn min rijaalikum ci seen góor yi lan la mu ne walaakin li fi nekk rasulallah yonantu bi yàlla la moom mooy bàyyu xeet wi loolu moo ëpp doole wa bii na dafa nekk kuy mottali yonantu yi gannaawam benn yonant dootul am moo tax sax bokk na ci turam yi aqib aqib mooy tekki aji mujj wa kaana nekk na laahu yàlla aliman di aji xam bi kulli seen ci lépp lëf kon mbir foofa la xam aaya yii di ci teguwaat wax na ci yonantu bi sallallahu alayhi wa maanaam mu ngi ñuy ñaax ci tudd tudd yàlla ni mu amee doole ci yaa ayyuha allazina amanu uzkuru la zikran kathiran jaamu yàlla yëpp tudd yàlla moo ci ëpp doole alquran wax na ko wala zikrullahi akbaru ndax tur dafa takkoog borom tur mbir mu ne nag la takkoog moom loola ëpp doole moo tax kon ku bëgg di takkoog yàlla foo toll di tudd turam wi di ko bàkk di ko di ko màggal di ko sàbbaal loolu am na doole lool moo tax tudd yàlla foor gi mu foor a tax ëpp doole ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla boo waxati budul tudd yàlla am na lim julli am na lim benn mu ñeenti rakka wala ñaar wala ñett bu dee aj màkka am na lim wër kaaba ga juróom-ñaar dox safa ak marwa juróom-ñaar sànni jamra ya juróom-ñaar yooyu yëpp ay lim la or weeru koor am na lim ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan du ko paase tudd yàlla nag amul lim yàlla dafa ne rek yaa ayyuhal lazina amanu uzkuru laaha zikran kathiran tudd leen ma lu bari waxut lu bari ci ñun mais lu bari ca moom jaamu yàlla goo waxati am na melo julli melokaanu mooy taxaw soo ko mënul taxaw wéeru wala toog ñàkk wéeru wala toog wéeru wala tëddee ndeyjoor wala jaa wala càmmooy wala jaaxaan war weeru koor am na melo bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee fi fajar xaree ba jant sox aj màkka am na melo mooy teraxlaayu boole koog làmbaayu di wër kaaba ga wax ju ànd ak jëf dox safa ak marwa wax ju ànd ak jëf sànni jamra jëf ju ànd ak wax ba tey waaye nag tudd yàlla moom amut melo noo mel tudd yàlla yàlla fay nga yore jana ba tudd yàlla mu fay nga taxaw di dox tudd yàlla mu fay nga toog tudd yàlla mu fay nga jonkan tudd yàlla mu fay noo defee tudd yàlla mu fay dafa ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum noo tuddee yàlla rek yàlla fay la su ko defee kon tudd yàlla amut amut amut melo jaamu yàlla boo waxati am na waxtu julli dafa am waxtu tusubaar tàkkusaan timis gexe inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta or weeru koor am na maanaam jamono te jamono ji mooy suhru ramadan aldi unsi aayaat yi yàlla dafa ñu ciy digal ñi bëri luñ koy tudd mu yaa ayyuhallazina amanu zkuru laaha zikran kathiran nañ tudd yàlla lu bari tudd yàlla ga lu bari nag ñun lay jariñ waaye jëriñut yàlla dara ñun lay yokku waaye yokkut yàlla dara ndax xamul lenn lu man a bàyyee ko ci jaam jëm ci yàlla lu koy yokku waaye lu bàyyee ko ci yàlla jëm ci jaam kay mooy yokk ab jaam moo tax yàlla wane ne tudd leen ma waaye yokkut ma dara ndax in takfaru fa inna laa ganiyun ankum ne ngeen weddi woon yéen ñëpp man xoomal naa walis leen soxlu ma ci yéen tus tudd gi may may tudd yéen dong lay jariñ ibnu abbas ne jaamu yàlla goo waxate guddul tudd yàlla yàlla wutal na ko waxtu ca julli ya ca woor ca joxe asaka ci aj màkka tudd yàlla nag yàlla wutalul ko waxtu dafa ne rek tudd leen ma du bëri yaa ayyuhal lazina aamanu uzkuru laaha zikran kasiiran moo xam noor nawet guddi bëccëg suba ngoon yëpp moo ca xem karon ñaareel bi tudd jaamu yàlla goo waxati yàlla wutal na ko mero wuñ koy defee buy julli taxaw mba taxaw wéeru mbaa toog ñàkk wéeru wala toog wéeru wala tëddee ndeyjoor mbaa mooy mbaa jaaxaan buy joxe asaka melowa mooy yëkkati alal ji jox ko kenn ci juróom-ñetti xeet ya xaj màkka melowa mooy taraxlaayu làmbaayu wër kaaba ga dox safaak marwa dem arafaak yi ci aju tudd yàlla nag amut melaw allazina la llaaha qiyaaman wa qu'udan wa alaa junuubihim boo tuddee yàlla taxaw yàlla fay nga toog mu fay nga tëdd mu fay mu jaaxaan nga fay noo defee yàlla fay jaamu yàlla goo waxati xam na jamono julli waxaj maaka xam na jamono alxaju asurun maalumaat woor weeru koor xam na jamono shahru ramadan lazi unsila fil quran tudd yàlla nag amul jamono dafa rek azkuruni azkurukum tudd leen mooma fay leen jamono ju ngeen ko defee yéen a xam kon tudd yàlla ngoog ak fooraay ga ak màggaay ga ak yëkkati ga moo tax sama borom ne yaa ayyuha alladina yéen gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ alquran uzkuru na ngeen tudd laaha yàlla sikran ak tudd kasiran gu bëri wa sabbihu na ngeen sàbbal ko bukuratan ci njël wa asilan ak ngoon te mooy njëlbeenu bëccëg ak njëlbeenu guddi yëpp de ci tudd yàlla huwa moom yàlla la fii mooy buur ba nga xam ne yu salli dana mu julli aleykum ci yéen wa malaikatu ak malaakaam ya li yuxrijakum ngir na mu génne leen mina xulumaati ci kéeféer moo tax mu jam ko kéeféer dafa bëri ay façon ila nuuri jëmee leen ci gëm yàlla wa kaana naka jekk moom yàlla rahiman yërëmaa kon la rahiman ku bëri yërmande la bil mu'minin ci way gëm ñi way gëm ñooña tahiyatuhum seen ak nuyoo gu bàyyeekoo ci yàlla na yalqawnahu bis bu ñu dajeeg yàlla moo xam ci bàmmeel moo xam ci génn ga moo xam ci aljana nuyoo ba daal salaamun mooy baatab salaam ji tekki jàmm ci làmmiñu malaaka yi wa aada na lahum ñaan leen ajiran paywar man gu tedd lii de yàlla defal nañu ko kon gis nga ko yàlla mooy julli moom ci boppam ci jullit ñi malaaka yi di julli ci jullit ñi julli dafa war yàlla julli na ci yonantu bi julli ci xeetu yonantu bi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi julli ci xeetu yonantu bi yonantu bi jiite leen ak jullit ñeneen passé woon ñëpp jiitu woon wala yusalli alayka wa malaikatahu julleegi yàlla ñi ne mooy yërmande borom xam-xam yi jiitu woon yëpp loolu lañ gëm julleegi malaaka yi njéggal su ko defee tamit seex na tijaan ne julleegi yàlla xamuñ ko te jéemuñ koo xam moo xam na mooy jullee ci ñun moo xam na muy jullee ci yonantu bi julleeg malaakaay yi nag ak suñ jullee ñun tamit ci yonantu bi yëpp jaamu yàlla la kenn du seexu tijaan yàlla moomu nag ne daa leen génnee ci lëndëm lëndëmi kéeféer kéeféer dafa bëri ay façon moo tax foo ko fekk fu ko tuddee rek fa koy jamoo jamoo mu anas halim rafaahee dàmm lu muy defati kasra ndax da façon wedd yàlla yi dafa bëri waaye gëm yàlla moom fu ko alquran tuddee dafa koy mufratal ne nuur ndax kat du wax anwaar mais nuur lay wax ndax gëm yàlla moom benn façon rek la gën na gën naa dëgërante nag yàlla nag moomu ne buñ dajeeg moom ñii ne ci bàmmeel malaaka yi nuyoo ba ci làmmeñu malaaka yi mooy salaamun buñ dajeeg moom ci aljana salaamun ndax kat yàlla dana nuyu jullit ñi alquran wax na ko salaamun qawlan min rabbi rahim naka noonu tamit dañ nuyu julit ñi alquran wax na ko wal malaaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baabin salaamun aleykum bima sabartum yàlla tamit dana ñi wax na ko feneen laa yasmauna fiha laxwan wala tasiman illa qiilan salaaman salaaman jullit ñi foofu dañ dañ nuyaante tamit seen diggante seen biir yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi yàlla bi innaa naka ñu yàlla arsalnaaka yónni nañ la shaahidan ngay aji seede képp koo xam ne yónni naa la ca moom wa mubashiran mbir mu ngay aji bégal képp ku la gëm ci aljana wa nathiran ngay aji waare képp ku la weddi ci safara wa daa daa'iyan mbir mu ngay aji hoote ilallaahi jëmee ci yàlla ci topp ko bi isni ci ndëgalam nag ngay hoote hoote boo xamul isnu du dem wa siraajan ngay kàndiya mu yiran bay aji leeral de wa bashiri na nga bégal al muminina way gëm ñi ci bi anna lahum naka aji nekk la ñeel leen min lay bàyyi koo ci yàlla fadlan ngëneel kabiran gu màgg te ngëneel ga mooy aljana wala tutix bul topp al kaafirina way weddi ña wal munafiqina ak way munafi munafiqina yi bu leen topp wadda na nga bàyyi asaawum seen ak lorga bu ko fayu bàyyi leen ak ñoom lu dul ñañ la digal nga fayu wa tawakkal na nga sax dàkk ci sukkandiku a alaay ci yàlla wa kafa doy na billaay ci yàlla wakkilan ci kuñ sukkandiku de yàlla digal na yonantu bi yónni ko muy seede ci ñañ ko yónni su ko defee bu yàlla yónniwutoon kenn ci ñun bu ñu bëggee mbugal ñu ne ko lawlaa arsalta ilayna rasulan moo tax ndigal mooy jiitu mbugal dañ lay digal nga tere nga wuuteeg lañ la digal ñu door laa mbugal mais mbugal du jiitu ndigal yàlla yónni na yonantu bi muy bégal képp ku ko gëm ci aljaana di xupp képp ku ko weddi ci safara di xoo yàlla yépp jëmee leen ci yàlla mais jëmeewu leen ci boppam moom nag ci ndigalal yàlla lay wootee moo tax saa yoo bëggee woote te ndigal sa woote ba du am leer dafay xajam dafay tilim lu ca bokk dana ca bokk waaye boo wootee te ndigal lal ko léppay set léppay sell léppay rafet su ko defee def na la ngay kàndiya boo xam ne dafay leeral rekk di gindi nit ñi jëmee leen ci yoonu yàlla yow yonantu bi saxal dàq ci bégal ñi la gëm wuy si la ca aljana yàlla nañ ca bokk waaye tamit bul toppanteeg yéeféer yi yàlla na ëpp nit du toppanteeg kum tolloowut bul toppanteeg munaafiqiina yi yow daal ñoom lañ xam lañ la lañ la lañ lay lebal yow fayee leen li nga xam mbon lañ xam di la ko lebal yow fayee leen mbaax def leen ni màngooy def yaa ko lebaloon benn xet wala nga lebal ko paaka di ko lonk mbaa xeer moom mu fayee la doom bu saf suukar booy màcc ca tàndarma ja ca màngo ja ca koko ja loolu mooy jikko ju baax aaya yi ci tegu yàlla dafa ñuy jàngal ku takk soxna sonn gu leen a jotee nga fase ko du yeddawu bu gisee tey tey jëkkër mën naa sëyi su boobaa nag su fekkee waxu leen woon can nga tënk ko ci dara nan ko ndàmp mooy yóbbal ko rek mu dem su fekkee takkoon ngeen can nga ci dara fukki junne ñaar fukki junne jox ko genn wàll can nga te bu ko ndàmp kooku lay alquran di wax nii ci aaya ji ñu bëgg cee teg kon ku takk soxna sonn gu leen a wéet nga fase ko yeddaamu ca su ngeen tënkoon can nga bañ xam somba ñaata la jox ko genn wàll ga perte nga ko su ngeen ko tënkutoon nag bul ko jox can nga waaye jox ko jox yóbbalu ko wa matiuuna moo tax mu ne yaa ayyuha allazina yéen gaa yi nga xam ne amano gëm nañu alquran na nakaxtum su ngeen dencee muminaati way gëm ñu jigéen ñi summa talaqtumuhunna topp gannaaw si nga ngeen fase leen min qabli an tamassuhunna njëkk ngeen di joteeg ñoom fama lakum de di ñeexal leen xale yi nekk ñoom min xeddatin ci xedda taatadunaha boobu da ngeen xeddahu ko déedéet fa mattiuhunna na ngeen leen yóbbalu rek ci li ngeen man comme tudd leen woon can ga su ngeen ko tuddee woon nag na ngeen jox genn wàllu can loolu la Ibnu Abbas wax wa sarihunna na ngeen leen berndeel saraahan ak berndeel jamilan gu rafet mooy ngeen bàyyi leen ñu dem te bu leen leen lor yaa ayyuhan nabiyyu ci tegu yonantu lay wax ak ñi nga xam ne yàlla daganal na ko ci yonantu bi ci soxna walla ñi nekk ay gor ñenn ña nekk ay taaraam ñooña ñëpp fekk yaa yëkkati seen can jox leen ko wala ñoo la may seen bopp yow kenn nga jagoo ko walis julli ñu loolu lay wax si yaa ayyuhan nabiyyu yonantu bi yàlla bi innaa naka ñun yàlla ahalal naa daganal nañ laka ñu yàlla aswaajika say soxna yi alaati ya nga xam ne aatay ah, te joxe nga ujóorawu na seen can ya ndax yow ngaa baax rek moo tax ngay joxe can waaye yow kenn yaa xeeyoo takk soxna ci lu duwut can soo baaxee ba joxe can nga nag wama malakat ak loo xam ne moom na ko yeminu ko sa ndeyjoor mi maa ca la nga xam ne afa màng na ko laahu yàlla xale ka waral la mooy luñ màngee ci xalali xéeféer yi ñu nekk di ay jaam nga jël leen mel ni safiyatu ak juwayru yatu boo déggee mu ne màng ko xalal ji kat jullit ñee ko moom bu demee ca loxol xéeféer ña dafa caa gaar si bu del si waatee ci ñu moo tax mu tuddee ko afaa mu bàyyi ko ci fay u wa banaati ammika ak doomi sa baay tëx yi wa banaati ammatika ak doomi sa bàjjan yi wa banaati xaalika ak doomi sa tànta yi wa banaati xaalaatika sa wa banaati xaalika ak doomi sa nijaay yi wa banaati xaalaatika ak doomi sa tànta yi alaati ya nga xam ne haajara danoo gàddaay maa ka ànd ak yow buñ gàddaay mënu leen takk wa mraatan ak jigéen moom itam ay jigéen yàlla in wahabat bu mayee nafsaha boppam li nabi ñeel yonent bi ñeenti jigéen a ko mos may boppam te fekk nag in araada na mun nabi yonent bi an yastan ki mu denc leen fekk loolu xaalisatan loolu muy aji jagoo lakka ñaal la min doone loolu walis way gëm ñi yow kenn dong yaa mën a takk soxna su la may boppam xamul joxe can yow kenn ko jagoo kon fi nee na ko daganal naa la soxna yi denc te fekk yaa leen jox can boo leen joxutoon sax dagan nañ la waaye yaa baax di joxe can yaay bàyyu xeet wi ñu fi nekk ñëpp sa njaboot lañ koo soxla jëlal su ko defee ak ñi nga xam ne dañoo dañoo gaar doon sa loxoy ya nga dem xare ji yàlla dogal nga gañe leen jël leen ñooñu tamit dagal nañ la say soxna lañ naka noonu tamit daganal naa la sa doomi euh, baay tëx yi gis nga jamuur ko da koo mufratal am su amul taa rek mm, dafay matale sa baay tëx yëpp ngay wax waaye ba muy wax bàjjan da koo jamoo amatika la wax waxut amatika ndax kat boo ko defee boo ko jamoo du matale boo ne am ammatu benn bàjjan la waaye boo ne ammaat nag jamoo ko mu matale ba muy wax nijaay tamit da mu mufratal ne xaalika waaye xaal joogi tamit matale na mbooleem nijaay ya boo xamoon taa nag benn rek lay tegtale muy tànt ba moo tax ba mu ñëwee tamit ci xaalaatika mu mu jamoo ko ne wa banaati xaalaatika kon ammika xaalika da koo mufratal ammaatika ak xaalaatika da koo jamoo ci sarta ba nañ gàddaay ku gàddaay bu ko takk charta ba nañ gëm yàlla ko gëmu yàlla doo ko takk ndax kat sa soxna yi ñooy kilifaay jullit ñooy yaay jullit ñi jullit ñi nag mérito wuñ ab yéeféer di nekk seen yaay moo tax yonent bi du takk musrikatu su ko defee in wahabat nafsaha ñeenti jigéen a ko mosa may boppam maymunatu cala bintu xaaris saynabu bintu xusaymata cala umul masakin umu shari cala bintu jaabir xawlatu bintu ñoo mosa may yonent bi seen bopp yonent bi nag xaraam na ci moom muy takk ab kitaabiyatu dafa daan wax ne sa'altu rabbi an la uzawija ila man kaana ma'i fil janna fa ataani man daal ñaan naa sama borom bu ma may ku dul denc ëllëg ci aljana yàlla may na ma ko kitaabiyatu nag euh, wi gëmul yonent bi yonent bi takk ko ko ko gëmul yonent bi doo dem aljana naka noonu tamit yonent bi takk mushrikatu ndax kat ay soxnaam ñoo yàlla yaayu jullit ñi jullit ñi méritoowut ab xéeféer di nekk seen yaay su ko defee nag lii moo ko jagoo kon bu la jigéen mayee boppam te soxlawoo ko doo ko takk moo tax mu tofal ci ne ba ne maanaam in wahaba nafsaha li nabi mu tofal ci ne in arada nabiyu an yastankihaha yow kenn na yaa jagoo jigéen may la boppam nga denc ko xamul joxe cenam xamul waxante kilifaam ndax kilifaam sax yaay kilifaam moo tax mu ne xaalisatan laka min doonil muminin yow kenn rek yaa ko xam kenn du yonantu bi ñun nag liñ moom lañuy ñuy wax si nii moo tax mu nekk qad alim naa xam nañu maa farat naa la nga xam ne farataal nañ ko alim ci way gëm ña fii aswaajim seen soxna ya ci ay xam nañ ko lim farataal ki ñun denc lu ëpp soxna yoo xam ne gor lañ amuñ droit di denc ci lu duhut ndigalal kilifa amuñ droit di denc ci lu duhut amuñ droit di denc ci lu can yii baaraas yëpp mabbu na ci kanam yonantu bi wamaa ak la nga xam ne malakan moom na ko ay maanuwum seen i ndeyjoor loolu tamit la leen dagan xam nañ ko ca borom jaam bi nga dem waxanteek moom mu jaay la ko ci prix nga nangu nga moom andi ko soo ñëwee nag taara la xamul moome saa yoo ko soxlaa rek soo dee ta xamul biir bu yàqu amul doom moom dañ koy donn sa doom ya waaye duñ ko jabaroo dañ koy jaay marchandise la soo xamee biir bu yàqu mbaa mu am doom dafay gore ca boppu alal ja lu tax lii yàlla def ko mu ne li maanaam li kay laa na ngir bañ a nekk alayka ci yow xarajun benn tiis lii inal wa kaana nekk na laaw yàlla xafurun di jégg laa kon raxima di ku bëri yër bëri ma laa bëgg a xamal ne ni ma la yaatalee yaatalee huma ko jullit ñi ni ma xatalee jullit ñi xatalee huma la ko ku la neex takk limité huma la limité huma la ci qualité ci quantité waaye dama laa limité ci qualité jigéen ñu am qualité ñii ci laa la limité nga takk leen waaye quantité moom limite limité limité huma la ci ñun nag dañoo limité ci qualité ci quantité waaye limité ñu ci quantité ñun daal l'essentiel buñ passé ñeenti jabar ñeenti bu mu sëy nekk sa gannaaw di gor xaraam na waaye buñ fekkante wut nga takkoon fase takkaat fase bu doon téeméeri takk tamit comme fekkante wut amoo ci benn bàkkaar kon loolu yu noonu yonent bi duñ benn kenn ku ne xam ne fu la yàlla xatal kenn ku ne xam ne fu la yàlla yaatal yonent bi dañ ko limité ci qualité ñun ñi limité ñu ci quantité mu nga ko moom nag quantité kenn limité wu ko neex jël mu jeex waaye kaal kii loolu la ko yàlla defal moo tax dégg na fanweeri sëy ak ñett ñii nañuy fanweeri sëy ak ñeent la yonent bi dégg ci alxayri kooku moo ko kenn du moom mu tofal ca nag ne ko yow xataluma la moo tax mu ne ko tur ji mënta saawu lu tax aaya ji wàcc ci li gën a wér ay surtout mu dama daan fiire ñu ñëw may seen bopp yonent bi ma ne waaye yéen a fayda jigéen nu muy maye boppam nuy jigéen di maye boppam te kilifa lu mu ci jublu woon du dara fiir rek yàlla nag yëg na lépp daa yàlla mu sirra a axfaa mu ne yow yonantu bi tënkatuma la dama laa tinki sa soxna yii xamatul moome ku la ci neex rek nga joteeg moom xamatul moome te booba dem di moome fu ne dafa daan métti ci moom ñu neñ ko ñàkk moome ga ñu ngi ko ko takk ñu ngi ko ko tënkal ci ñi ñi maye seen bopp ñu ne ñàkk a moome ga ñu ngi ko ko may ci ñëpp rek ku ko ci neex rek amul moome waaye ak maandoom ak ak mbaaxam moo taxoon moom mu daan moome fenn fu fu mu war a aye dem fa fu mu warta aye moom yonent bi du fa dugg bu fa fàtte woon am mbaxanaam wala mu fàtte fa lu mu soxla tamit du fa duggati ca biti lay nekk taxaw laaj ko fa kenn du moom boo xamee lu muy joxe dajale leen ñoom ñëpp ñu dajee ci ëtt ba mu ne am leen bokk leen séddoo leen xaajoo leen góor gu maandu baatam koy daanee ci leen xaajoo leen bokk leen séddoo leen mu jeex yàlla ne ko wama ni bu te xayta moo tax mu ne ko tu wi danga nga tàpp tur ji danga nga manta saaw ku la neex minu na ca sa soxna yi wëlis moome wattu wi da nga tàpp ilayka jëm ci yow manta saaw ku la neex xamut moome wa ma ni bu taxay te képp koo xam ne sàkku nga mi man asalta ci ñi ga ber wëlis maanaam moome na junaax déet bàkkaar alayka ci yow ci ànd ak moom kenn terewut la ko zalika tànn loo googa addunaa moo gën a jege du ko defee aw an taqara ba maanaam ba sedd na seen xol ya tànnaloo googa addunaa moo gën a jege an taqara bay sedd ayununa seen xol ya wala yaxsannata du duñu jàq wa na danañu gërëm to wa dégg nga wa bi maa aataytuhunna ci diñ leen jox kulluhunna ñoom ñëpp laa wax nag wallahu yàlla yaalamu xam na maa fi qulubikum nekk seen xol yi ci euh, cofeel jëm ci yenn ci soxna yi wa kaana naka jekk allahu yàlla xaliman xamaa kon la xaliman ku bëri lewet la kon mu ne ko mu dama laa tinki mais tënkuma la da ngaa maandu ku maandu kenn du ko tënk ku maandu hadi la ñuy tënk ñun dañoo maandu wut moo tax yàlla tënk ñu yenentu fa maandu ku mu du la lor yaa koy lor mu koy muñ moo tax yàlla tinki ko tënkut ko ci dara su ko defee nag kon ku maandu luwaa du ko mën a tënk ku maandu wut nag moom la ñuy tënk ci luwaa waaye xam nga ne fii rek janax mënta jàpp ñay yenentu bi ñay la su ko defee nag moo tax mu ne ko kon nag yow daal euh, euh, moome gi nag moo gën a sedd seen xol te loolu la ñuy gën a gërëm moo tax loolu yonent bi doon doxal ngir maandu euh, waaye nag tinki naa la boo tënkee sa bopp tamit yaa ko teg sa bopp waaye man tëgguma la ko ndax naa ko maandu nekk du loru kenn du yow yàlla mi ci waxak ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di wane ne moom da koo tënk ci soxna yoo xam ne juróom-ñeent lañ sañu sañu sañu caa fase kenn sañu ta jël kenn tamit di ko ca dolli kon moom dañ ko tënk ci qualité keneen ku dul moom nag ñu tënk ko ci quantité ne bul passé ñeent mu ne ko nag soxna soo gisati lu mu rafet-rafet amuloo droit di ko takk sa soxna yi luñ la mën a defati tamit amuloo droit di leen fase lebal gañ lebaloon yàlla tànn yonantu bi sallallahu alayhi wa tànn tànn àllaaxira tànn yàlla moo tax tamit yàlla fayee leen teraanga ju réyee nii teraanga ju réyee nii yonantu moo leen di denc ba xëy génn àdduna bàyyi leen fi duñ leen fase moo tax juróom-ñeent ñooñu ñoo ko mujj ténj ji yàlla faye leen teraanga ju toll nii dootuñ dolleeti keneen ci seen kaw beneen teraanga ja gën a wéy nag bu yowmal qiyaamee ca aljana yonentu bi continuer di leen denc ndax moom dafa waxoon ne ñaan naa suma boroom mbooleem soxna bu ma denc fii ci àdduna rek bu yowmal qiyaamee naa continuer di ko denc ci aljana yàlla may na ma ko waaye tamit loola ba ko ko yàlla mayee mayaale na ko ci xeetam wi ñu texe képp koo xam ne jullit nga nga am soxna fii yéen ñaar ngeen bokk texe bu yowmal qiyaamee da ngeen di continuer seen dencante ci aljana bu fekkee ne nag genn jigéen ko am ñaari jëkkër la amoon na jëkkër mu fase ko keneen takk ko wala mu amoon jëkkër mu génn àdduna keneen takk ko ñaari wax benn wax ju njëkk ji Abu dardaa moo ko waxoon soxnaam Ummu dardaa da koo denc bay war a génn àdduna moom Abu Darda soxna si ne ko ku baax nga samay waajur yi ñoo ma la mayoon waaye doylu ma ci yow te yëg naa ne yaa ngi tàggu pour dem bàyyi ma fi damaa bëgg bu yowmal qiyaamee nga denc ma foofa ci aljana mu ne ko charte bi benn la mooy su ma génnee àdduna bu la kenn dencaat ñu ne kon boo bëggee sa jëkkër denc la bu génnee àdduna bu la kenn dencaat ñu ne wax jooju ji ko gën a dëgër mooy wax joo xam ne Ummu Habiba di soxna su yonantu moo ko laaj yonantu bi sallallahu alayhi ne ko waaw jigéen su amee ñaari jëkkër yàlla dogal mu dem aljana kan moo ko cay denc yonent bi ne ko dañ koy tànnaloo ci ñaari jëkkëram yi kan moo ko ci gënal gën gënoon caa rafet jëkkër gënoon caa rafet jikko kooku continuer di ko denc keroog la ko yonent bi ne ko jikko ju rafet wurus la ni ñu ko soxlaa ci àdduna noonu lañ ko soxlaa ëllëg ci àllaaxira jigéen gu mën a doon nag boo amee ñaari jëkkër nga wax sa digganteek yàlla rek ñoom ñaar am na ku la ca gënal que la ca gënal nag ñoom ñaar ñëpp bu ñu texee kooka mooy continuer di la denc ci àllaaxira kon maanaam yàlla ba mu ko mayee yonantu bi juróom-ñeenti soxnaam yi mayaale na ko xeetam bi ñu nga xam ne texe nañ ca góor ña ak jigéen ña buñ continuer di dencante fii bu yowmal xiyaamee dañuy continuer dencante moo tax sax booy jullee néew bi muy jigéen bëgguñ nga ne yàlla nga ko wattee jëkkër ju gën jëkkëram ji ndax jëkkëram ji ko doon denc fii moo koy gënal mu continuer di ko denc foofa su melee na war moo tax yàlla ne laa yaxilu du dagan lakka ñeel la an nisaawu soxna yi yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam min baxdu gannaaw juróom-ñeenti soxna yi tànn la amatoo droit di ca dolleeti kenn walla an dala du caa ngay wattee bihin na ci ñoom min aswaajin ci soxna amatuloo droit di fase ci ñoom juróom-ñeenti ñi kenn di leen remplacer keneen walaw ajabaka donte xéemuloo na la na seen taar jigéen goo gisati lum rafetati rafet amatoo droit di ko takkati di ko di ko teg ci kaw juróom-ñeent ñii amuloo amatuloo droit di wàññeeti juróom-ñeent ñii di indi keneen ñu ne ñu ne ko faw mu ne ah illa ma malakat lu loo xam ne moom na ko yeminu ko sa ndeyjoor muy taara ku la neex nag sañ nga ko def muy taara nga jënd ko wala ñu may la ko nga dolli ko ci waaye jigéen juy nekk gor gooy denceeti nga koy dolli ci juróom-ñeent ñi mënta nekkati moo tax mu ne ko wakkaana nekk na laahu yàlla raqiban di aji wattu mooy aji fuuglu ala kulli ci lépp lëf gannaaw juróom-ñeent ñi nag yonent bi am na taara jëm na taara buñ daan tuddee maariyatul xibtiya buur ba nekkoon Égypte ñu ko daan tuddee mu xaw xiis moo ko ko mayoon bi ko yonent bi bindee leetar di ko woo ci diine nangu wutoon kesaasa waaye mu yëkkati kado yu bari may ko ko ñaari jaam yu jigéen ca lañ bokk muy ay jéebéer kenn ki mu may ko xasaan ibnu thabit kenn ki mu denc ko muy maariyatu xibtiya mayoon na ko ay xayma mayoole ko ay berbergenn ba mayaale ko bax la ba mayaale ko sax benn médecin yonent bi jël may yëpp ba mu des médecin bi mu ne ko na ñibbi lu tax mu ne ko amuñ ci soxla ñun duñ feebar lu tax mu ne ko nit lañ ñoo xam ne bala ñoo lekk fekk nañu xiif te lu ñu xiif xiif duñ topp suñu ndeyjoor bala ñoo suul fekk ñi bàyyi lekk ga mu ne loolu ku koy takkoo yàlla musal la ci feebar ndax kàmbi feebar yépp mu ngi bàyyi ko ci kàmbi biir rek ba yonent bi daana wax ne ndab yi yàlla jox doomu aadama bi ci gën a yées bu feesee mooy biir moo tax biir bu fees moom borom feebar rek foofa rek lay mujj moo tax maanaam dana bëri tey koo xam ne feebar dana ko dal ci at mi ñu ngi koy jëlee ci ñaar ci reeru tamxarit wala ci dog ci dogu weeru koor wi weeru koor wi jot ba bëccëg bi loo romb sa xel dañ nga jënd loo lu sa xel daj nga jënd nga ne ah comme man dama rate woon ndékki li rate woon añ bi lépp damay profitoo def ko ci dog bi da ngay mujj dog a dog ba far dog su boobaa maanaam da ngay mujj jëlee ci feebar ki ñaareel bi tamit reeru tam xarit ñëw reeru joo xam ne lu ne dañ ko ca def cere ju ñu suukar danañ ca def lu ne cere la tudd waaye cere ca gën a néew nga lekk caa lekk lekk ba àndatoo sa sago kon maanaam mënoo mënoo ñàkk am feebar ci at mi kon faw ñi seet li ñuy lekk ak nuñ koy lekkee waaye nag li ñuy war lekk tamit boo ko lekkee nuñ ko war ta lekkee jëlee ci feebar lu ñu war lekk boo ko lekkee tamit jëlee ci feebar moo tax yonent bi jël may yëpp delloo ko médecin bi ci la fuqahaa yi jëlee ne koo bokkul ak diine bu la mayee lu sa diine nangu jëlal mu xaw xis li may yonent bi diineem nangu na ko jël na ko doonte bokkuñu diine waaye koo bokkul ak diine bu la la sa diine nanguwul nag bàyyee ko ko bokkul leen diine mu may la xaalis jëlal bokkul leen diine mu yàkkal la añ le te li mu lim la yàkkal sori may na nga lekk ko muy ceeb ak yooyu lekkal wala nga lax gi dara nekkul ci lekkal waaye nag bu la joxee sàngara wala mu jox la yàpp mbaam xuux wala yu mel noona delloo ko ko ndax sa sharia nanguwul ko kon moo tax mu xaw xiis bi mu mayee yonantu bi may yooye yëpp diineem nangu ko da koo jël lam ca am soxla lam ca amul soxla muy médecin ba mu nekkoon na bi ñun amuñ ci soxla ndax ñun yàlla dimbal nañu daal feebar moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla dimbal nañu ci ndax bala ñoo lekk fekk na xiif nañu te lu ñu xiif xiif bala ñoo regg fekk na bàyyi nañu lekk ga moo tax yonent bi dund na ba génn àdduna mosta regg benn bis ci kaw suuf ba daana wax ne ku bëgg a am jàmm am santé gu sax na nga xaaj sa biir bi ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi nga def ko ñam bu ñaareel bi ndox bu ñetteel bi nga noyyi ko waaye boo bëggee jël lépp nag def ko ñam ne ndox moom woyof na noy yomb na su boobaa tamit danga nga ci jëlee feebar rek tax sëriñ ba sàll góor a yàlla gu tedd ga mos naa am ay gan defal leen berndeel ñooña lekk ba suur mu ñëw di leen seet mbaa xéwlu ngeen kenn ki ñoom ne ko ah, sang bi jërëjëf bernde yi neex na lekk nañ ba suur këll mu ne ko yéen def lu xaraam ab jullit war a lekk bay suur waxuma la këll kon maanaam këll boo ci yeggee def nga lu moo tax mu ne ko laa yaxilu du daggan làkka ñeexal la yow sayduna muhammad anisaawu soxna yi min baxdu gannaaw juróom-ñeenti soxna yi tànn la amatuloo droit tegata ci kenn wala an tabaddala du caa kenn ngay wattee bihin ci ñoom min azwaajin ci soxna amatuloo droit fase ci kenn walaw ajabaka doonte xéemuloo na la xusnuhunna seen taar illa ma malaka loo xam ne moom na ko yamina ko sa ndeyjoor muy taara wa kaana a jekk moom yàlla maanaam raqiban aji fuglu la ala kulli ci lépp lëf de amoon na soxna soo xam ne jëkkëram a génnoon àdduna bëggoon na koo takk moo doon jëkkëram moo doon jaafar soxna si tudd Zeynabu bintu Umayshin soxna su rafetoon la waaye nag ndeysaanam jëkkëram ji génn àdduna ca xare ba yonentu bëggoon koo takk doole ko ci soxna yi yàlla tere ko ko mujj gi la ko Aboubacar bëgg bi ko Aboubacar bëggee yonantu bi dimbale ko ci ba mujj Aboubacar moo ko mujj denc mooy mooy soxna soosu di Zeynabu bintu Umaysin soxna su Jaafar la woon waaye Aboubacar ko mujj denc ci ndigalal sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaat yi tege ci nag mooy ayatul xijaab kenn du yàlla ci xormaal soxnaay sayduna Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam soxnaay yonantu bi dañ daan jaxasoo ak yeneen góor ñi ndax yonent bi dafa woyaf yemale njabootam ci ñépp su añ jotaan ñi teg bool bi soxnaam yeeg yeneen saaba yëpp ñooy bokk bool yi léegi-léeg sax loxoy soxna yi ak loxol saaba yi daje ci biir bool bi am na ci koo xam ne loxo mos naa tege ci loxo Sayyidatuna Aïsa ci biir bool bi jaxasoo googu am ñi toog di waxtaan dugalante génnalante Omar ibn Xattaab ku fiir la yàgga mbébét ak yàgga njéeju yàlla def kiiraay ci soxnaay yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba kenn du yegg ca ñoom kenn du leen gis mu yàgg wax yonantu bi ne ko sa kër gi ñaara fi dugg am na fi kuy dugg ku baax am na fi kuy dugg ku bon kon nag yow nag dangaa rafet njort ci ñëpp su ma sañoon daal sa soxna yi nga wax leen ñi jàpp kiiraay góor ñi ban a yegg ca ñoom loolu yonantu ya maanaam Abu Omar wax na ko ko waaye ñaareel bi tamit Omar mos na koo wax Zeynabu ne ko yéen soxnaa yonent bi ngeen ni seen jëkkër gënee foor ci góor ñi na ngeen gënee foor ci yeneen jigéen ñi moytundi ko leen góor ñi ngeen di jaxasoo di toogandoor ak ñoom lu ko defee Zeynabu ne ko yow daal Omar da nga fiir rek aaya yii di wàcc suñ saal ya lay wàcc muy suñ néeg ya te yàlla waxu ci dara ah mu jigéen ak Omar loola mu nekk ca rek insisté ca ba yàlla wàccee aaya nag ne daal soxnaa yonantu bi nag nañ leen defal kiiraay nekkatul góor gu nekk mooy dem di yegg ca ñoom ndax tamit loolu nag mu ngi mel ni valable na ci ji jamono boo nekkee sëriñ bi woote ku ne dugg sa kër waaye am na kuy dugg sa kër koo xam ne day wut si lu ñaana ko fa indi nga ñaanal ko am na koo xam ne day bëgg nga ñaagal ko am na koo xam ne nag bëtam ya ma ngay tege sa njaboot gi booy sàggan rek mu mu maanaam mu wutu la ca gannaaw te loolu bëri na yàlla nag jàngale loola jaaree ko ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñuy xoote ci diine man caa jàngee ndax nag boo xasee xoote ku ney ñëw ku baax ak ku bon ñëppay ñëw moo tax Omar mënuñu koo fay daana wax ne bëri na lu ma mbébét ba ma ko bëggee rek yàlla def na ko Omar ci boppam bu ñu mosaan di Kaaba ga dox def tawaaful qudum tawaaful ifaada ak yeneen tawaaf yi dañ daan wër rek ñibbi waaye amutoon julli ñaari rakka rakka ci maqaamu Ibrahim Omar mbébét ne de ah wallaay bu fekkoon ne bu ñu wëree ba pare dañuy julli ñaari rakka ci maqaamu Ibrahim dana baax dana rafet fa mu ko mbébétee rek aaya ja wàcci wattaxasu min maqaamu Ibrahima musallan su ngeen jullee su ngeen wëratee kaaba gi ba pare julleen ñaar rakka ci maqaamu Ibrahima ba léegi fu mel ni moom la ñuy def beneen bi tamit keroog ba yonentu bi jàppee périsio yële ca Badar juróom-ñaar fukk mu laaj Aboubacar luy sa xalaat ci ñii mu ne ko say bokk lañ dañoo dese rek laaj leen alal te leen mu laaj Omar ibnu Xataab mu ne ko ñii ñu bon lañ dañu sabote suñ diine ji deseel suñ yàlla yi di wax ci yow lu ñaaw génnee ñu màkka jël suñu alal yi tey jekku nga leen jekkali leen rey leen ñoom ñëpp ci noonu daal ci xalaat yi ba mu jëlee ñeenti xalaat yëpp ci saxaaba yi mu jël xalaatu Aboubacar ba waaye aaya ja wàcc ànd ak li Omar wax ba aaya ja wàccee rek yonentu bi ñëw fekk Aboubacar a ngi jooy yonentu baa ngi mel ni tamit di jooy Omar na leen lu ngeen di jooy wax leen ma ko su ma ko mënee jooy su ma ko mënul jooy jooylu lu ko defee nag mu ne ko ñun de yàlla ñu musal waaye xaw nañoo tëkku ci mbugalam lu toll ni fii ak basan bii ñi lal ci la alquran wàcc ne maa kaana li nabiin an yakuna lahu asra xatta yutxina fil ardi wax ca loola ba laaya ja jeex kon gis nga ànd naak Omar Euh, kon timit beneen bi ci tegu benn munaafiq bu ñu daan tuddee Abdullah ibn Ubay ibn Salul dafa génn àdduna daana julli yonent bi gis na ko muy julli yonent bi ne kon da koy jullee Omar ñëw nekk kii doo ko jullee naafeq piir la naafeq yi nekk dëkk bi mooy seen kilifa defar leen sàppe yi yonent bi bëgg a dem ca kanam rek Omar ñëw xaw mel ni ku koy bamax xëcc ko bu paree mu ne defar leen sàpp yi ba muy ñetti yoon saa yu ñëwee bëgg a taxaw rek Omar ba max ko mu jigéen ak yonantu bi nag ne ko Omar man la yàlla yónni bàyyi ma ma jullee ko bu deree bu neree dem safara sama jullee gi mënu ci dara wax wax mu ne ko doo ko jullee foofa rek aaya ji wàcc ne ko wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi ci lañ déggee ne koo bokkul ak diine fu ñu koy waajalee di yóbbu koor ba lu ciy sa yoon bu ca dem fi koy fi koy dencee ca armeel ya lu ciy sa yoon bu ca dem bu ñu ko dencee ba pare amoo droit tamit ñaanal ko bàyyi ko ñam bokk ak diine ngi ñaanal ko diine kenn du ci maslaa loola kon wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan mooy kon fi ñu koy waajalee di ko waajal di jullee ka ñaan waroo caa dem wala taqum ala yi mooy fi ñu koy dencee amoo droit dem ca su ko defee nag léegi loola kon gis nga yonent bi lii la jàpp Omar jàpp li yàlla ñëw ànd ak ah, Omar ibnu Xattaab soxna yi tamit Omar yàgg bëgg ñi kiiraayu ñu ba gaa yu góor ñu sàggan nga duñ man a yegg ca ñoom waaye tamit aaya ja wàcc ànd ca ak Omar ca wàllu woowa ne léegi daal soxna nañ jàpp kiiraay li ko war a nag mi ngi mi ngi wàcc keroog ba yonent bi ceetalee Zeynabu bintu Jaxsin dañ ko céetalee dafa ay gàtt yoon nii ne leen woo leen gaa yi ñëw lekk ka woote mu ne woo naa lu ëpp ñetti téeméeri nit dañu lekk ba suur ba man amatuma ko ma woo ñëpp a lekk ba suur bi ñu lekkee ba suur nag am am ñu fa des ñetti kuréel des fa rek di waxtaan guddi jot yonentu bëgg a fatu ñooña toog rek yonentu bi génn génnalu ñu toog rek mu génn génnalu waat def ko ba mu ñetti yoon ñu toog rek gannaaw si ga nag lañu door di door a dem ci ñettee ñetteelu yoon ba aaya ja wàcc nag ne bu leen duggati kër yonentu bi lu dul ñam wi moo sotti ba pare bu sottee ba pare ba ngeen lekk tamit bu leen toog di xaar attaay gi naan deuxième lay xaar door a dem di yéen a ngi lor yonantu bi te moom dafa am kersa man mii nag awma ci yéen kersa dëgg laa leen di wax kon nag bala ngeen a kër yonantu bi na fekk ñu teg bool yi bu ñu tegee bool yi ba pare tamit ku lekkati rek demal ñibbi lii mi ngi mel tey ci kër sëriñ la wàcci léegi-léegi nit ñëw xëy ci kër sëriñ bi sëriñ bi soxla boppam mu toog rek sëriñ bi nekk ci saal bi bëgg a def nàngam mu toog rek sëriñ bi dana def ne kon nag ñu ñaan ba pare waa ji ñaanaat toog rek bu ko defee tamit du xam nu muy def mooy li ma la waxoon keroog nit ñi dañ lay doxale seen digganteeg yàlla ba pare dox fa dañu bëgg dañ la bëgg a doxale sa digganteeg yàlla lu leen réer ci masala ñu bëgg la koo laaj duñ la may occasion fooy liiree fooy tontoo masala dañ la bëgg a doxale seen digganteeg yàlla soxla bu ñu am bëgg nga ñaanal leen ci duñ la may occasion fooy jaamoo yàlla boo ñaanee fu muy nangoo te lii fu ma ni gàllankoor la ñu bari da nga gis kuñ ñu diw borom xam-xam la dana toog ren ba déwén ñetti paas yu mat mënu koo liir mi ngi ci soxla yi mi ngi ci hitte yi rek boo nekkee ci lii yaa nga ca lee looy tontu su ko defee nag yàlla ne du ngeen jël yonantu bi bëgg koo digale seen digganteeg yàlla ba pare bëgg a dox diggante moom ak yàlla du ma ko seetaan bala ngeen duggati ci kër gi rek na fekk ñam wi sotti bu ngeen lekkee rek bu kenn xaarati ataaya beeg deuxième beeg li xew kenn ku ne di wax lu ñor ak lu ñorut moo tax boo nekkee ci kër sëriñ ñi bëgg a kenn ku ne ñëw bëgg a fees saal bi di wax lu ñorut tasal kaamil bi kenn ko ne nga jox leen ñaari jukki ñi ñeenti jukki mënu dañ wax ne kon nag sëñ bi ñaanal ñu ñu xewee ko nga am li ko mooy dañ dafa fa ñëw dugal la fa dugg ci waxi jàmbur dugg ci mbiram jàmbur ba nga mujj am bàkkaar kon loolu lu jar a baxi xel la moom la yàlla di wax nii moo tax mu ne yaa ayuha alladina e yéen gaa yi nga xam ne amano gëm nañu alquran laa tadxuloo bu leen dugg buyuuta nabi ci kër yonantu bi te mooy néegam ya illa an yuusana ndere digaleef làkkum ñeexal leen ilaa taamin ngeen jëm ci ñam woo xam ne xayra naasirina mbir moomu duhu leen wëy mu ñëndiku ineewu ñor ak ñam wa da ngeen di xaar ba ñam wa ñor ngeen door a dugg ci kër gi walakin li fi nekk ida duitum ndeem wooyeef na leen ca ñam wa fa duxuloo dugg leen fa ida taimtum bu ngeen lekkee fantasiro nangeen ngeen wisaaroo ngeen dem ñibbi liggéey yi wala bu leen sax mustanisina mbir moomu yéen ngi wéttalikoo lenn ci yéen ñaan lenn li hadisin ci waxtaan inna zalikum naka sax googa toog di wax rek kaana nekk na yusi di lor na bee yonantu bi fa yastaxi muy xeres minkum ci yéen lu leen mën a wax dëgg waaye wallaahu yàlla laa yastaxi moom du xeres minal xaq ci dëgg de wa ida saaltumuhuna bu ngeen nammee laaj soxnaa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mataaxan ay bagage fas aluhuna na ngeen leen ko laaj min waraay xijaabin ci gannaaw kiiraay de amu leen droit di jàkkaarloo te am ñoom de dégg de kon nag laaj leen li ngeen soxla rek fekk du ngeen leen gis dalikum loolu la seen muy kiiraay ga ataharu moo gën a laab li qulubikum ñeel seen xol yi ndax xol dafa sob wa qulubuhunna ak seen xol yi ñoom soxna ya ndax xol dafa sob te lu muy gis rek bu yàggee xolam yebal ko ca fu mu ko yónniwut léegi-léeg sa xol bi dana dem fu la tàgguwut wala mu dem foo xam ba muy dem maanaam joxoo ko paas indil la fa sérita yoo xam ne waxoo ko mu jëndaaleel la ko xol dafa sob te xol lu muy xool rek di gis bët di ko xool bu yàggee rek xel daj ko mënoo ci dara moo tax gis nga alquran dafa nekk ci dayob toftale moo tax gis nga lam tere lam lam leen tere ne bu leen jaxasoo teeg soxnaa yonantu bi bu leen toogateel noonu ndoor xijaab la ku amati soxla na wax ci gannaawam rido la mu soxla ñu jox ko ko waaye toogati jàkkaarloog ñoom jeex na takk foofa rek fi ko yàlla teree rek noonu buñ koy teree rek ci aayaat yi pour tere ko rek am na benn saxaabi bu ñu tuddee talxatu talxatu bnu abdullahi talxa wala talxatu bnu ubaydillahi mook talxatu mi yonent bi dëxaloon aljaana ñoo bokk tur ñoo bokk benn qabilatu ñoo bokk benn turu baay waaye bokkut ak talxatu mi nga xam nag ma waafoon ci kaw yonent bi keroog uxut bokkut ak moom waaye ñoom ñaar ñoo bokk tur bokk turu baay bokk benn famille moom mooma moo toog rek xelam may ko mu ne ah man kay bu ma fi yonent bi njëkkee njëkkee bàyyee ko kenn du ma njëkk ci Aïcha xolam xolam a ko wax loo loola kon loo gis rek bu yàggee sa xol wax ca sa xol maanaam xalaat ca lu rafetoon xam nga loolu ñaaw na loola bu ko waxoon ci làmmiñam moom waxatuñ ay mbiram waaye xelam mi ko xalaat rek yàlla ñaaw la ko weer ko moo tax mooy tegu ci lii kon li nga say déggee dana bari ku ne maa ngi seeti sëriñ ba di ko siyaara ji waaye fekk xelam baa ngi seen man daal bu ma sëriñ bi njëkkee génn àdduna seetam bi kenn du ma ci njëkk du jeex wala soxnaam nangam kenn du ma ci njëkk yàlla bàyyiwul dara dafa mel ni lii mu ngi xew ci suñ jamono ci waaje tamit xalaat loola ne man kay bu yonentu bi génn àdduna moom Aysa kenn du ci njëkk xelaat boobu la xelaat rek ndeysaanam yàlla weer ko waaye ba ko yàlla weeree dafa dem tuub xelaatam ba mujj na aji màkk fukki yoon dox jóge ko Madinatu Munawara ba màkka dox ko ba muy fukki yoon di di umra jeeka aj ba mat fukki yoon ñaareel bi tamit mu mu mat fukki gawar ci ay fas ak i ngànnaayam ut fukki jàmbaar teg leen ci ñu dem xare ji yemul ci mu jënd juróom-benn fukki jaam ak juróom-benn mu tolloog addadu allah muy 66 ci ay jaam mu goreel ko ngir xalaat bu ñaaw bi mu ci xelam. kon xam nga ne lii bu ko defutoon fu mu jëm moo tax nag yàlla wàcce aaya ji ne amu leen droit di takk soxnaa yonantu bi kon sa xalaat boobu booyee boo delloo ko fa nga ko jëlee woon soxnaa yonantu bi seen yaay la amu leen droit takk ko. amu leen droit tamit di lor yonantu bi ci njabootam moom lay wax si nii. moo tax mu ne wa maa kaana yellut lakum ñaan leen an tuusoo ngeen ni lor rasulullahi yonantu bi toog rek jëmale fenn mu soxla tamanta dem wala an lu du caakeen ngeen ni denci aswaajuhu soxnaam ya min baxdi min baxdi ca gannaawam bu xasee génn àdduna soxnaam ya du ngeen ca denci kenn inna dalikum naka loolu le seen kaana nekk na indalaay fa yàlla aziman dig lu màgg yonantu génn àdduna nga denci soxnaam lu màgg la la waaja nëbboon la yàllay feeñale in tubdoo su ngeen feeñalee shay an dara aw tux foo wala ngeen nëbbu ko fa inna laa naka yàlla kaana nekk na aliman di aji xam bi ko li seen ci lépp lëf lim nëbboon ci xolam ne bu yonent bi génn àdduna kenn du ma jiitu ci Aïcha rek yàlla feeñal na ko nii mu dem kafaara xalaatam bu ñaaw booba ci juróom-benn fukki jaam ak juróom-benn boole koog aj dem aji fukki yoon yoo xam ne dafa dox boole koog maanaam euh, ut ut lu mat fukki gawar waajal ay nit ñi dem xare ji mu kafaara xalaatam bu ñaaw booba kon léegi léeg bu sa xalaat bu sa xalaat ñaawee jëm ci soxnaay sëriñ bi wala sa xalaat ñaaw jëm ci maanaam njaboot ak sëriñ bi xalaat bu ñaaw boobu war nga ko war nga koo kafaara su ko defee nag na nag la nga la sa xalaat bu ñaaw booba yow nga mujj wax ko nit ñi xalaatu fuñ mee dañ koy fuñ dañ koy mujj sax wax waaye passé nañ wax ko sax dañ koy mujj jëf ko te doo ca mën dara su ko defee kon yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel moo tax yonent bi soxnaam yi génn na àdduna kenn mësu leen a denc bi mu génnee àdduna ki ko njëkk a rek toog na fukki at fukki at di muñ mooy Zeynabu mi bintu Jaxsin moo ko njëkk a fekk waaye ànd ak lam koy fekk yëpp moom toog na fukki at door a fekk yonent bi ci biir suuf mësta toog a benn góor yonent bi waxoon na leen ko tamit dafa leen a toog soxna yi wër ko mu ne leen su ma génnee àdduna ki gën a gudd ci yéen loxo moo may njëkk a fekk ci biir suuf yonent bi génn àdduna ñu commencé jël buum di natt yaa ma gën a la loxo maa la gën a guddi guddile loxo yaay njëkk a dem de maa lay mujj dem waaye ndeke arab dafa naqaree dégg dafa ne awalu kunna luxuuqan biya atwalu kunna yadan ndeke na mu ci woon loola nga gën a gudd loxo mooy ne gën a am njariñ rek ki gën a tabe ci yéen dàq mën a joxe ñam gën a tabe di dimbale jaami yàlla yi moom a njëkk a fekk si waaye ndeke ba mu génnee àdduna ñu seet ne ndeke soxnaam yëpp Zeynabu moo ci gën a tabe lu mu am jox ko jaami yàlla yi moo tax sàngoo suuf fukki at lañ ci teg mu fekk yonent bi ci biir suuf may Maymunatu moo ci mujj génn àdduna ba muy génn àdduna am na juróom-ñetti fukki at ak dara door a dem door a door a moom moom sax moo ci gën a gudd fan moo ci gën a gudd fan moo ci mujj dem moo ci mujj fekk yonent bi xoolal li lay xamal ne soxnaa yonent bi ñu mënee muñ sayyidatuna Aïcha mi ci nekkoon jànq yonentu denc ko dañ ko koy may juróom-benni at la am bañ koy jébbal yonentu bi juróom-ñeenti at yonentu bi génn àdduna mu am fukki at ak juróom-ñett muy adadu xayun ayun jii aju dund moom ba yonent bi dem loolu la bàyyi fukki at ak juróom-ñett toogaat na di muñ toogut génn góor ci lal ba mu am juróom-benn fukki at ak juróom-benn doora doora doora dem àllaaxira moo gën a gudd yonent bi fan ñetti at yonent bi juróom-benn fukki at ak ñett Aïcha juróom-benn fukki at ak juróom-benn nit ki sa jëkkër génn àdduna fukki at ak ñett nga am ko toog toogaatoog benn góor ci lal ba mu am juróom-benn fukki at ak ñett juróom-benn dëgg-dëgg kooku kon amul morom. moo tax kon wala an tankihu azwaajahu min baadihi abadan soxnaam yi kenn du leen denc léegi nag bi aayatu xijaab wàccee wane ne soxnaa yonent bi fi mu nekk bu fa kenn yeggati moo tax sëriñ bu ko man yàlla may la barke war ngaa organiser noo xam ne sa soxna ya ak sa doom ya fa ñu nekk bu fa gaa yee yegg kër goo xam ne ñëppay dugg te ñëpp yemuñu ah da nga ciy war a bàyyi xel nit ki dafay fiir moo tax Omar ku fiir la woon waaye li muy fiir saxdoo ko gën a fiir saxdu dafa daan wax ne man dama fiir ba nga xam ne sama doom yu jigéen yi wala sama rakk yi su ma fekkoon kenn di leen seet sama jaas ji laay jël dóor ko ci seen bopp yi ba ñu nekk ñaari xaaj gaa yi ree ne ko yaa fiir mu ne li may fiir fiir yonentu ma gën a fiir yonentu bi ne leen li may fiir fiir yàllaa ma gën a fiir yàlla nag mu fiir mooy lim tere la bëgg ñu sori ko lim digle ñu nekk ca bañ na ko ba lim tere da caa fiir ba ne waxuma def ko waaye bu leen ko jege wala taqrabu zina tilka laa nangam ak nangam toujours fay wax ne bu leen ko jege loo jegewul mën nga koo def kon yàlla dafa fiir ba lim ñu tere du wax def leen ko waaye wax ne bu leen ko jege bu leen ko jege nag loo jegewul doo ko mën a def léegi nag bi aayaat yi wàccee kon hijab bi ñu war koo jàngee ci yonent bi fi ñuy royoo diine yaakaar la su boobaa timit ña fay ñëw war nañ faa fekk diine war nañ faa fekk tamit soxna yi bañ a bañ a nekk noo xam ne ku ñëw mën leen a gis wala nga gis leen ci melokaan woo xam ne nii rafetut loolu tamit nekkul loo xam ne lu baax la léegi nag bi aayaat yi wàccee xijaab bi wàcc yi gaa yi xat nag ñu bëree bari commencé na waaw kon même ñun suñu doom yi du leen bëggee gis sax dañuy dañu am problème Aboubacar wax loola ndax doomam a ngi sëy ci kër yonantu bi muy Aïcha Omar tamit wax loola Xafsatoo ngi sëy ci biir këram seen seen seen rakk ya mel ne Abdourahman ibn Aboubacar ak ñu mel noona yàlla na fett ke nit ñii ma bëgg lim bokkuñ ci ñii moom saa yuñ bëggee gis direct kenn du jërul kiiraay di ko dox seen diggante ak ñoom moom lay tudd si nit ñi nga xam ne mën nañoo hegg ca soxna ya moo tax mu ne laa junaaxa de bàkkaar alayhinna di leen war ñoom soxnaa yonantu bi fii abayihina ci dugg ak seen bàyyi seen bàyyi mën nañoo dugg ci seen biir dara newu ci wala abnaayihina bu kenn seen doom ya doom yañ amoon njëkk yonantu bi di leen denc ku mel ni umu salmata amoon na ñeenti doom avant yonantu bi di ko denc ak ñu mel ni sawdatoog ñooña seen doom yi mën nañoo dugg ci biir sans ñu am kiiraay wala ixwaanihinna du caa kenn seen mbokk yi Aboubacar Abdourahman doomam la kon mbokk la ci Aïcha sañ naa dugg sans mu am kiiraay wala abnaayi ixwaanihinna du caa kenn doomi góor yi seen mbokk yu góor ñi mën nañoo dugg jarut kiiraay wala abnaayi axawaatihinna du caa kenn doomi góor yi seen mbokk yu jigéen ñi mën nañoo dugg sans kiiraay wala nisaa yi na jucaaken seen soxna yi soxnaay saxaba yi sañ na noo dugg ci soxnaa yonentu bi jërut kiiraay jigéen ak jigéen kay dara xewu fa boobu maanaam la ñu tuddee sixaaq xewagutoon muy ñaari jigéen ñuy sëy te loolu moom du xam foofa ba mukk ñi yonentu bee leen yar seen xel xelaatut sax di def lu bon loola waxuma la sax di ko def waaye duñ ko xelaat kon mu ne kon jigéen ñi sar sañ na ñoo yegg ci soxnaay saxaba yi sañ na ñoo yegg ci soxnaay yonentu moo tax léeg-léeg buñ laajaan yonentu bi yenn masala yi mu delloo leen ci Aïssa mu jàngal leen amoon na daara di jàngale di jàngal jigéen ñi moo waral moom ci xam-xamam bu bëri ba ndeysaanam bokk ci li ëpp luñ solo boo demee ci Seex al Islaam Ibrahim day wax ne bokk na ci jigéen ñi ëpp luñ solo ci hadis ki yonantu bi mooy maanaam sayyidatuna Aïcha jigéen ñëpp moo ci ëpp maanaam xaddis yum solo ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga dem ci Maodo mu ne hadis yam solo boo ko calculé mat na ñaari junney hadis ak ñaar téeméer maanaam ak ak ak fukk adda war din la wax gannaaw ñaari junne ñaari junne ak ñaar téeméer ak fukk laa la sa solo jëlee ko ci Seydunaa Muhammad kon xam nga ne kooka li li borom këram gi wax lim ci xam bari na jigéen goo waxati rek moo la ëpp lum solo ci yonent bi su ko defee kon nag moom mooma nag daana bari lu mu daan jàngal jigéeni jigéeni saxaaba yi ba yonent bi xool ko ba mu neex ko mu ne leen xuzoo nisfa diinikum min haadihi l xumayra jàppee leen seen genn wàllu diine ci ndaw su xees yi kon nag jigéen a ngoog sa borom kër bu nekkee euh, tabaarakallaahu di jàngale da ngay fexe loo jëlee ci moom lu bëree bëree bari moo tax tamit gis nga Aïcha li mu jëlee ci yonent bi bëri na lu mat ci xadis yu bëri yooyu yëpp mu jëlee ko ci borom këram gi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi moo tax mu ne wala maa malakat du caa kenn loo xam ne moom na ko ay maanuhu na seen ndeyjoor yi wattaqina na ngeen ragal laaha yàlla ina laaha naka yàlla kaana nekk na shahidan di aji seede ala kulli seen ci lépp lëf mu ne nag seen jaam yi mën nañoo dugg ci biir Euh, Aïcha amoon na jaam bu ñu daan tuddee Zukkwaan euh, maanaam euh, siiw na ci téere siira yi Zukkwaan ko wax ne ko nag su ma demee ba tëral ma ci xabru rek ci ngay door a su ma deexee ngay door a gor mu dabbar la woon loolu lañ fuqaaw yi tuddee mu dabbar sa jaam bi nga ko man su ma deexee ngay door a nekk gor kooka daana dugg ci biir léegi léeg waaye ñu ne nag jaam yi dañ leen ni setti su nekkee jaam boo xam ne bu fegu la jaam bu baax bu jub la kooka sañ naa dugg waaye bu fekkee jaam bu xaw a sàggan la nag du hegg fa soxnaa yonentu bi nekk de kon nag maanaam kilifa dafay war a bàyyi xel ci soxnaam yi kër goo xam ne ñëppay dugg te kër moom ko ñëpp moom ñëpp a nga ca ñu baax a nga ca ñu bon a nga ca su boobaa loola boo bàyyiwul xel rek musiba am moo tax tamit daal kër yi ñëppay dugg borom kilifa yi dul bàyyi xel lu ne fay xew dafay xew kenn ñi mu ko wax ci àdduna bi te lu leen fay xew te loolu yéen yéen ñi may déglu yéen ko gën a xam kon nag ay yi tegu ci yàlla ñuy wax xormaa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga wane na xormaam war na xormaa xormaam ci soxnaam yi bañ leen di dugg di yegg mu ne nag kaay leen ma wax laay xormaa yonantu bi ci baatin xormaa yonantu bi xegg na ci man yàlla maa ngi julli ci moom xormaa yonantu bi xegg na ci samay malaaka yi ñu ngi julli ci moom kon nag xormaa yonantu bi xegg na si yéen julli ñi su ngeen bëggee lu baax julli leen ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii lépp dafa ñuy waye dafa ñuy waye dafa ñuy wan dayob sayyidina Muhammad ak fooraay ga moo tax mu ne inna allaaha yàlla wa malaayikatuhu ak malaakaam ya yu sallu na ñu ngiy julli sax nañ dàkk dappetu di julli andi na mu daari o yadullu ala dawaami wal istimraar ci ulamaawu dañ ne mu daari foo ko fekk dafay la muy la muy tegtale day sax di continuer moo tax mu indi maanaam yu sallu na mu ne kon nag yaa ayyuhaa lazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gën nañ alquran salloo julli leen alayhi ci sayyiduna muhammad wa sallimoo na ngeen sëlmal tasliman ak sëlmal àllee ci sayyidina Muhammad julli leen ci yonantu bi man yàlla ak samay malaaka yi ñu ngi julli ci yonantu bi yonantoo foor yàlla lëmm ak malaaka yi di julli ci moom nu malaaka ci moom ak yàlla nag boroom xam-xam yi wax yu bari ñu ne julleegi yàlla ci yonantu bi yërmande la julleeg malaaka yi ci yonantu bi ñaanal ko yiw ak njéggal la julleeg julleeg maanaam nit ñi ci yonantu bi jaamu yàlla la lii la borom xam-xam yëpp bindoon mu fees ki téer yi Cheikh na Tidiane ne d'accorduma julleeg julleegi yàlla ci yonantu bi ñun xamuñu ko jéemuñ koo xam kenn xamu ko yàlla jullee ci yonantu bi kenn xamu ko bu ca a dugg ci détail neel daal yàllaa xam ne mu jullee ci yonantu bi xamuñu ko mu ne nag julleeg malaaka yi ak julleeg doomu aadama yeeg jinne yi ci yonantu bi ñoo xem maqaama yëpp jaamu yàlla la julleeg malaaka yi ak julleeg nit ñëpp ci ci yonantu bi ibadatu la waaye julleegi yàlla nag ci yonantu bi mu ne jéemuñ koo xam bu ci jéem a dugg nii la ko Cheikh na Tidiane yi firee su ko defee nag gis nga yàlla ba muy wax julleem gi dafa andi mu daari wax inna allaha yusalli wa malaikatu yusalluna kon yàlla julleem ji dafa sax dàkk ci yonent bi heure bu ne ma nga ca malaaka yi tamit julleem nga da caa sax dàkk heure bu ne ña nga ca ñun nag mu indil ñu amar amar ci usul dafa bari ay façon léegi-léegi amar dana ñëw yeddulu ala nat bi lamar joo xam ne la muy tegtale dañ koo sopp am lamar goo xam ne yeddulu ala al ibaha li muy tegtale dañ dafa dagan am nag lamar boo xam ne la muy tegtale alal wujub la muy tegtale dafa war lamar nag cosaanam ci ci usul la muy tegtale dafa war maalam yu sarifu sarif mais lamar ji nag yàlla na julli leen ci yonantu bi julli nga ci yonantu dafa war ci la Maalik ne comme yàlla wax ne sallu alayhi yow daal sa dund gi lépp boo ko julli woon ci yonantu benn yoon wàcc na la wenn yoon rek wàcc na la ndax def na lam wax dana koo digal def nga ko benn yoon jeex na waaye nga dund ba génn àdduna julliwoo ci yonent bi benn yoon am nga bàkkaar bu rëy rëy ndax dangaa bàyyi santaane bi yàlla sallu alayhi la wax moo tax kon Malick na wenn yoon waaye wenn yoon nag mu wenn yoon wa doyut nu gën a bëree gën a baax Malick day jàngale rek wala ne boo ko defoon benn yoon rek wàcc na la waaye nu mu gën a bëree gën a baax li koy tegtal Ubay ibnu Kaab saxaabi yu bu neexoon alxuraan la bokk ci ñu daq alquran ci saxaaba yonentu yonentu mos naa toog carrément Jibril ñëw ne ko sa borom nee na demal ci Ubayu nga toog maanaam ubayu jàng alquran nga dégg ko nga jàng alquran kon ubayu déglu la mu ne ko man maay jàng mu déglu ma mu ne ko noonu dafa ne yow na nga jàng ubay déglu la kon ndeke alquran ni ngay bëggee di ko jàng ñi koy déglu ni lay bëggee tamit nga keneen di ko jàng déglu ko ndax nga am ca yoon yonent bi ñëw ci ubay ne ko yàlla wax ne naa jàng alquran nga déglu ma mu ne ko xanaa yàlla dafa laa wax ne demal ci sa saxaaba yi kenn mu jàng alxuraan nga déglu ko waaye ndax yàllaa jaar sama tur wi mu ne yàlla moo jaar ci sa tur wi rek uh, ubay kontaan bay jooy mu ne sama tur wi yàlla xam ne ko ba jaar ci carrément mu ne ko yàlla xam na la ba moo jaar sa tur wi rek mu commencé jooy ngir mbégte kontaan fekk tamit jooy jot na ubay moomu nag moo ñëw ci yonent bi ne ko man de damaa bëgg julli ci yow waaye damaa bëgg xaaj sama jëf yi may jaamu yàlla ma xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj ba muy sulus ba julli ko ci yow yonent bi ko boo ko yokkee mu gën a baax de mu ne ko kon ma xaaj ko ñaari xaaj nisfu ba muy genn wàll ga ma julli ko ci yow yonent bi ne ko boo ko yokkee bu a baax de mu ne ko kon naa ko xaaj ñetti xaaj sulusaani ba mooy ñaari sulus ma julli ko ci yow mu ne ko boo ko yokkee mu gën a baax de mu ne ko kon li may jaamu yàlla lépp danaa jël la ci hëpp lépp ma def ko julli ko ci yow yonent bi ne ko boo ko defee sa njàqaraay àdduna ak yoo xalla yëpp yàlla fegal la ko jéggal say bàkkaar moo tax kon jaamu yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp bi ci hëpp doole mooy julli ci sayduna muhammad boo demee ci mbindam seex al islaam dafay wax ne jaamu yàlla goo waxati yàlla da koo digle waaye defu ko ba mooy julli ci yonantu bi yàlla digle julli waaye moo digle xoor moo joxe moo digle joxe asaka waaye diglewut ko waaye defu ko waaye julli ci yonantu bi nag moom da koo da koo def ba pare door ñu koo digal inna allaha wa malaayikatoo door a wax ne yaa yaa yoon sama sallu alayhi kon da koo def ba pare door koo digal beneen bi ci tegu tamit nga déggee ci ne jaamu yàlla goo waxati yàlla dafa ne ku def ma fay ku julli ma fay nga woor ma fay nga joxe asaka ma fay waaye julli ci yontu moom dafa ne ku ko def ku def ci yontu ma def ci yow ku def ci yow mu hëpp nag dafa ne man salla alayka salatan wahida sallallahu alayhi ashra ku def ci yonent bi benn man yàlla ma def ci yow fukk nga def ci yonent bi fukk man yàlla ma def ci yow téeméer ku def ci yow yonent bi téeméer man yàlla ma def ci yow junne yonent bi ne ku def ci man julle julle ci man junne sama mbagg ak sa mbagg dañ buux buuxloo buntu aljana di njëkkalante xaw ma yaa may njëkk a dugg xaw maa lay njëkk a dugg ma ne nañ dugg rek moom kay nañ dugg rek boo yeboo njëkk noo dugg waaye nañ buuxlaante daal ba mu dugg rek lii la yonent bi wax kon julli ci yonent bi junne yoon kon yow boo fekkee bët bu set nga julli junne wala ñaari junne foo jëm ku ni maam El Hadj Abdoulaye Niass daana def bët bu set mu julli ci yonent bi fukki junne yoon ak ñaar ci salaatul faatihi te du ko yàqal jàngale du ko yàqal firi alquran du ko yàqal maye wirdo du ko yàqal joxe lijaasa ya du ko yàqal seeti ku feebar kon dama ne lu waaye man julli ci yonent bi na ko def ñaareel bi tamit ba ñett wala ñetteel bi julli ci yonent bi mooy jaamu yàlla goo xam ne bu ko yàlla xasee nangu rek jeex na dootul màbbati dafa am jaamu yàlla yoo xam ne boo ko defee ñaar fukki caay-caay boo ko toggee benn boo ci def la nga amoon ci lu njëkk la loolu bokk na ca yéex a julli tàkkusaan loola bokk na ca ameel doomu aadama yi xàq liggéey leen ba ñu ñaq nga war leen a fay ñi lay toppaat di la fayekuwaat ba ñaqaat sa li nga amoon ci lu baax day màbbu noonu lañ ko borom duratul xarida di limee ba mat ñaar fukki jëf waaye yooya di màbb nag fi lay bàyyi koor koor moom manta màbb fi lay bàyyi kalimataani xafifataani yonent bi waxoon na ñaari baata ngi nii xoyof lool ci làmmeñ diis lool ca baskil ba comme dafa ne diis nañ ca baskil ba dañ ko peese du màbb waaye tamit fi lay bàyyi salaatu ala nabi yi comme yàlla wax ne ku julli ci yonent ma julli ci yow loolu foog ñu fay la ko du màbb su ko defee kon tamit loola loola maanaam njariñ la ca fa lay bàyyi tamit ku def benn bennay sa fay bu la yàlla buuñaa juróom-ñeent juróom-ñeent ya sa buuñaa la moo tax koo amee ak maam xalifa nee na bu yowmal xiyaamee sa benn benn ba la ñuy fayee mais juróom-ñeenti buuñaa yi duñ ko fayee kenn ku ci loo xam ne day waral jëf ju màbbu maam xalifa na juróom benn baay màbbu waaye juróom-ñeent ya moom du màbbu ndax ju buuñaa yàlla la ci la wax ne wa innama lil xuramaa'i waahida wa tilka faidatun ay faida fayeeku kat yi benn ba lañ moom moom nga jëf juróom-ñeent ya la la ko buuñaa kon kon doo ko fayee kenn juróom-ñeent buy mabbuy am bennay mabbu moom nga moom juróom-ñeentee du mabbu moo tax mag ñi seen njàngale mbir kéemaan la ci lay waxee ci njàngale ma ne ba xadis ba ñëwee ne yàlla fa wax ci xadisul quds yu ne ku xoor maanaam kullu amal ibnu aadama la ila mu fa innahu lii wa ana ajisi bi xadis bu naqaree dégg la moo tax waxi yàlla magam yàllaa ko mën a dégg ba yàlla ne jëfi doomu aadama lépp doomu aadamaa ko moom ba mooy koor koor maa ko moom wax ju naqaree dégg la maam xalifa firi ko ca jigóos ne xam nga li muy firi ñu ne ko déedéet mu ne tafsiruhu bi anna ajara saaimi yabqa fala yuxasu fi lmazalimi li muy firi mu ne kullu amal ibnu aadama la loolu maanaam ki benn phrase la boo ko bëggee dégg nga wax ne jëfi doomu aadama lépp doomu aadamaa ko moom wax ja jeex doomu aadamaa moom julleem doomu aadamaa moom aj màkkaam doomu aadamaa moom joxe asakaam comme moo ko moom nag moo ko moom jeex na boo leggee boo amee leen nit ak saaga na kii xas na kii jëw na kii triyaan alalu kii la moom la ñuy fay li nga moom lañ mën a faye jël ca julli ya jël ca aj màkk ya jël ca saraxe ya ak yooye loolu nga moomoon mu ne yàlla waaw suñ ko fayee ba àq yooye mu moomoon jeex bañ sës ci koor nag mu ne asaw mu lii koor man maa ko moom nooy def ak borom àq yi te jeexul mu ne wa ana ajji si bi maa koy fayal damay ubbi sama màng si niyu fayal la waaye yoolab koor duñ ko faye kenn moo tax mu ne tafsiruhu bi anna ajra saaimi yabqa fala yuxasu fil maxaalimi moo tax waxi yàlla magam yàllaa ko mën a dégg waaye boo ñëwee ni bokkoo ca mag yàlla ya doo mën a dégg wax yàlla ji moo tax kon maanaam euh, koor koor nangam ñi léeg-léeg nga dégg naan jëfi doomu aadama yëpp koy doomu aadama maanaam koor yàllaa koy fayal boppam waaye ma ne ku jëf ku la fay rek la bëgg yàlla bu la fayee du manqué bu la boolee ku la fay du manqué waaye lim namm ca maa koy fay mooy ne koo ameel àq wala luy màbbu ba yegg ca yoolab koor maay ubbi sama màng si ni yuy fay waaye yoolab koor ko fayee kenn lu tax mën a jaamu yàlla goo xam ne mën na lañ ko mos a jaamoo jaamu yàlla goo waxati ku dul woor mbon mbonam nit mës na caa yóbbu nit julli mii li muy foor foor nit mës na ko defal ku yàlla ku tudd julli sa kel daj su jóot gaa yi daan nañ su jóotal jant bi ak weer wi xiram yi ba yàlla ne laa tasgidoo li shamsi wala lil xamari wasgidoo lillaahi si xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun waaye tamit ku tudd aj màkka daa nañ ko defal ku yàlla ku tudd te aj màkka sa xel daj wër kaaba ga gaa yi daan nañ wër diggante maanaam di wër ay juróom lu ma ñett téeméeri xiram ak juróom benn fukk daan leen wër ca ga ku tuddoo aj màkka sa xel daj dox diggante safa ak marwa ñaari xiram rek a fa nekkoon muy isaaf ak naay la daan daw di ko baagante waaye nag man-man ak nit ak mbon mos ci toog fajar xar ba jant so lekkoo naanoo koo koy defal nga ne xiram wala jant wala weer walla nit wala malaaka mos ta xam koor daal yàlla rekk moo ko mën a santaane am client ku dul yàlla boo santaanee koor doo am client moo tax nag yàlla ne comme man maa ko santaan am client yu toll koor yool ba du ma ko fayee kenn koo amee ak su may fay ba sës ci yoolab koor maay ubbi sama magasin yiw ya fayal la waaye yoolab koor du ma ko fayee kenn waa ana ajisi bi kon loolu lay loolu lay loolu lay loolu lay aaya ji tekki loolu lay hadis bi tekki hadisul qudsiw la mooy lu yàlla wax ak ñun te duwut alquran kon maanaam julli ci yonantu baa ngoog foor na lool ci ngay déggee ne li yonantu bi ne woon maanaam li li li li gaa yu bari wax ñu bëree koy bind boo demee ci dalaa ilul xayraat dafay indi ay salawaat ala nabi yu bari dana ci wax sa genn salaatu ne salaatu gii ma bëgg a jàng ku ko jàng wenn yoon rek la wax wenn yoon am nga yoolab ku wàccee téeméeri junney kaamil allahuma salli ala sayidina muhammadin bi adadi anfasil maxluqaati allahuma salli ala sayidina muhammadin bi adadi ashaari almawjudaati allahuma salli ala sayidina muhammadin bi adadi xurufi lawhi wa daawaat allahuma salli ala sayidina muhammadin bi adadi bidayati wa nihayat min almaadumi walmawjudi ila abadil abad wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim benn yoon boo ko jàngee am nga yoolab ku wàccee téeméeri junni ya ne waaw kon dafay mel ni kon di ko salaatu ala nabi gën a alquran ñu ne déedéet nag fa ko moo ko ëpp yool waaye gënu ko yool ak ngëneel duñ benn dara dana gën dara ba par dara ga yàlla bi ko ëpp ko yool loolu usul la koy jàngale ah, maanaam euh, euh, usul lay jàngale na ngëneel ak yool duñ benn dara mën naa gën dara ba pare la ko gën loolu xëpp ko yool xam nga tey aj màkka boo ko defee war li jéegoo jéegoo bu jéegu juróom-ñaar fukk soo ajee màkka dox jéego boo jéegu juróom-ñaar téeméer kon aj màkka dox a xëpp yool waaye nag war a gën moom la yonent bi defoon kon maanaam ngëneel ak yool duñ benn salaatu ala nabi moo xëpp yool jàng alquran xam nga li tax yow ci sa bopp boo jàngee alquran yaa ko jàng ci sa làmmiñ wii nga xam ne ci ngay wax lu dul dëgg ci ngay jëw ci ngay xas ci ngay rambaaj ci ngay def lu dul noona yow nag boo jàngee ci yonantu bi julli ci moom yàllaa jàng ci yow waaw benn jàng yàlla ci yow mën naa xëpp téeméeri junney kaamil yoo jàng ci yàlla duñ benn man salla alayka salaatan waahida nga def sallallahu alayhi ashran yàllaam lëmm bu julee ci yow fukki yoon te li ko sabab mooy ji nga julli ci yonantu bi mën naa xëpp téeméeri junney kaamil yoo wàccee ndax bii ngaa def bii yàllaa def ci yow kon li nga def ci yàlla li nga def ci yonantu bi li yàlla def ci yow mënut a xam ak moom Cheikh na Tidiane yi détaillé ko ne ñiy jàng alquran sax ñeenti xaaj lañ kiy jàng alquran bu alquran diglee mu def bu teree mu bàyyi bu xuppee mu tiit bu béglee mu bég bu waaraatee mu waaru bu xisaa mu yéemu buy jàng alquran di di sàmm wanteeg déyaale ga lépp lu ñuy jàng jàng alquran gën ci moom lépp nag ku ñaareel ka mooy koo xam ne bu jàngee alquran ma ngay digle bu teree la mu digle ma nga koy def bu teree mu bàyyi bu xuppee mu tiit waaye nag nam koy teewloo ak lam cay yëg bokkut ak moom kooku tamit li muy yées yées jàng alquran a gën ci moom lu mu mën a jàngati ku ñetteel ki mooy koo xam ne bu jàngee alquran moom tamit ma ngay def ndigle ak tere ya ak ak bàyyi ya xamu ca dara mënu caa firi dara sax waaye yàlla nga ko digle jàppee na ko ci melaw borom xam-xam cheikh na kooku la muy yées tamit jàng alquran a gën ci moom lépp ku ñeenteel ka nag mooy koo xam ne bu jàngee alquran moo bari léegi boo jàngee alquran digle defoo bu teree bàyyi bàyyiwoo bu xuppee doo doo tiit bu bég la doo bëgg bu waaraatee doo waaru bu xisaa doo yéemu yow daal wàccee naa fukki kaamil ci koor gi rek te yow lii alquran di digle defoo ca tus kooka moom noo gën a jàngee alquran alquran da lay rëbb moom la yonentu bi ne rubba qaari in fekk wal quranu yal'anuhu waaye julli si yonentu bi xam rëbb kenn loo bon bon yaa ko tax a jug loo bon bon boo jullee si yonentu bi kenn du la rëbb waaye alquran kon day am noo mel door koo mën a jëriñoo waaye nag salaatu ala nabi noo mel moom mu fekk la fa duñ moo tax suñ sëñ ba sëñ Aliou Sakho xakim la woon dafa wax ne alquran saakoob dugub la salaatu ala nabi yi di kiloob cere mu ne dëkkab siis siise boo dem ne kiloob cere saakoob dugub lu gën gaa yi ne la ah kiloob dugub kiloob maanaam saakoob dugub ba gën ndax moo gën a bari ay kilo waaye buñ la ko laajee muy booy neel buy buy ko xiif boo xiifee yaakaar naa jël cere jàggan salaatul faatee cere ju pare la dangay ñëw rek jariñoo waaye nag alquran moom saakoob dugub la balaa nekk cere da nga soq da nga wal da nga mu da nga suusal mën na faa jaaree sax yàqu su ko defee kon bala nga koo mën a jëriñoo day am noo mel door koo mën a jëriñoo salaatu àla bi nag noo mel mën koo jëriñoo kon duñ benn de dara dana alquran ak gën lépp lu ñuy jariñoo waaye xëy bala nga caa jar bala nga caa jëriñoo dafa bëri sarta sarta ya ngay jaar ba mën caa jariñoo dafa dafa dafa jafe waaye waaye salaatu àla bi nag noo mel mën caa jëriñoo loo bon bon yaa ko taxa a jug boo laabee mën koo jàng boo yoree janaba mën koo jàng boo taxawee mën koo jàng boo toogee mën koo jàng boo dul wax dëgg mën koo jàng du la rëbb mukk sa waaye nag alquran moom day am noo mel doo ko mën a jàng da nga war a mel boo ko mel boo ko jàngee alquran da lay rëbb nga taxaw naan bisimilah rahmaan rahim mu ne ma mu la su booxam yow bu ma tuddati yaa bon doo wax dëgg nangam ak nangam bari na kuy jàng kaamil bi kaamil bi mi ngi koy rëbb yu too ko wax rubba qaariin wal quranu yalanuhu yow su fekkee ne yaa ngi rëbbal ne allah laanatullahi alal kaafiriin rëbbam yàlla dal na ci kaw ñi dul wax dëgg te yaa ngi ci biir ñi dul wax dëgg yaa rëbb sa bopp ku kay amul dem fenn yaa rëbb sa bopp kon nag aaya yi tegu ci yàllaa ngi euh, dal ci kaw ñi bëggal lor yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam naan ñu ngi ñi bëgg a lor yàlla ak li lor yonantu bi moom lay wax si nii ñii lor yàlla naan dafa na yaddullaahi maxluula ñuy bëgg a lor yàlla naan maanaam yàlla am na ay doom wala dalaahu ba yàlla ne lam yëlit ñii jël yonantu bi ne bu xaabakat la njabarkat la shaa'ir la loolu lay bëgg ñëw nii di ko wax si waykat la moo tax mu ne inna alladina ndaal ñi nga xam ne yu'tuuna dañuy lor laaha yàlla wa rasuuluhu ak yonantoom bi laanahum soril na leen yërmande laahu yàlla fi duniyaa ci àdduna wal axirati wa aada xadul na lahum ñaal leen azaban mbugal mu ngi leen may borom mag doxa dal de wala fi nag ña nga xam ne yuusoon dañuy lor moom ñu ne way gëm ñu góor ñi wal muminaate way gëm ñu jigéen ñi bi xayri maktasaboo ci loo xam ne fàgguwuñ ko di leen duutalu duhu dëgg faqad ixtamaloo ñoo ñu xelu nañ buxtaanan ay nar wa isman bàkkaar mu bi leen ngay aji biir de yaa ngi sosal jullit ñi loo xam ne dara du ca dëgg di leen kàccal waaja defoon na ko Ibnu Abbas dafa wéeru ci kaaba gi ne ko kaaba gi yàlla xormal na la fonk naa la lool am nga daraja waaye màbb la moo gën a xoyof ci man may lor ab julit dama ne mala sax ku ko lor boo moytu dem safara waxuma la doomu aadama moo tax boo téyee sa làmmeñ wii di ko joyal ci dori gor ñi di leen lor fanaanoo julli yendoo xaste yendoo rambaaj yendoo jëw yendoo dagg ak bokk yendoo wax lu ñaaw dee dem safara rek nit dee na gaa yi seede mën a julli mën a woor gaawaa ji ne waaye ku mënoon a ñaawal jëm ci dëkkandoor la yonent bi ne safara la jëm jigéen dee ñu ne ko mën a julli mën a def nangam benn waaye ne dee ku soxor la amoon a dëkkandooru muus mu yàqal ko mu yeew ko yonent bi ne safara daqalat imraatun bi hiratin rabatata kon ñaawal jëmee ci muus bu bu yóbboo nit safara ku ñaawal jëme ci jullit ñi foo jëm ma la ngay ñaawal jëmee ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag aaya tegu ci mi ngi wax ak colaay yu bon yi mi ngi mel ni ndakaaru la wàcc colaa yu bon yi jigéen gu la ci romb nga ne xanaa day bëri ji jël seen xar-xaram xëy pentiir ko monte ay xef jël seen weeya guddal ko jël maanaam seen weeya pentiir ko ba ku la ku taxaw sa kanam da ngay wax ne xanaa kii rab la moo tax may wax ne faru rab yu bari yëpp jigéen ñu niru rab rek moo ko waral nit day bëgg xeetam bi jigéen ñi niroo rab ba léegi xale yu góor yi niru rab moo tax koo ci gis am na faru rab day foone rab bi day foone moromam la mu ñëw di ko seet si tax rab yi bëri fukki jigéen yoo gis juróom-ñett yëpp ànd nañu rab ndax rab la ñuy niru xale góor yoo gis fukk yëpp juróom-ñaar yi ànd nañu rab wàccee tubay sol mbaxanaam gannaaw weeru gannaaw rab rek ngay niru moo tax tamit rab yi ñëw dugg leen rek yàlla nag colaay gu jot da koo ñor ba kim ko njëkk sant yonantu bi mu ne ko sant ko sa soxna yi bala ngaa génnee mbir mi waxal sa soxna yi ne colaay gi yiiw ñaareel bi wax ko sa doom yi boo ci bàyyee ko door ko wax jigéeni jullit ñëpp jigéen dafa war a jigéen dafa war a solu colaay gu yiiw lépp mu muur ko ba mooy xar-xaramam ak cat ténkam ya yàlla nee na ñaar nga cay jëlee lañ ci dañ ci xamee ne yow jigéen gu yiw nga muy benn ñaareel ba da nga ci jëlee góor gu sàggan du la ñemee tàppaas góor ñu bon ñi ñëpp borom colaa yu manqué yi dong maanaam moom la ñuy tàppaas te nag colaay gu manqué li tax mu bon boo nekkee jigéen di sol colaay gu manqué yi nekk ca ba am doom li la yàlla nattoo ba ca gën tuuti mooy doom ju manqué bu sa colaay manqué rek sa doom manqué waaye bu sa colaay matee rek yàlla may la doom ju mat woo kon bàyyi leen xel na colaay yi mat mu ngi mel ni nag ndakaaru la wàcc jigéen ñi solatuñ lu yiw góor ñi solatuñ lu yiw kenn ku nekk la ngay sol ma nga bona a bon nga romb ay góor ñi lay xool ba xool sa bëtitu njuréel gi nga dem sëy mënoo am doom nga dem jële ca feebar fu nañu yóbbu la médecin bi xool gisuma dara sëriñ bi listixaar gisul dara fekk bët yu bon yooyu ñoo la xool kon nag or la or dañ koy war di muur di ko denc fu baax di ko denc ci boyot yoo xam ne dañ koy tëj boo soxlaa rek génnee waaye jigéen warul jàppee boppam xànjar warul jàppee boppam weñ gu ñuul warul jàppee boppam muy përëm muy lu ñuy saam ci mbedd mi di ko sànni loolu lépp nag ba ko jigéen ñi jàppee seen bopp rek ca la ñu yàqule ba léegi moo tax mu ne yaa ayyuhan nabiyyu e yow yonentoob yàlla bi qul waxal li aswaajika ñeel sa soxna yi wa banaatika ak sa doom yu jigéen ñi wa nisaa'il mu'miniina ak jigéeni jullit ñu góor ñëpp wax leen ne di dini ne nañuy jotal te mooy wàccee ba mu suufee àllahi na ki ñoom min jëlaa bii bi bihin na ki seen mël fa yi na wàcc daalika loola le te mooy wàccee mël fa yi ba mu jot ànd ak fatt addunaa moo gën a jege an yoxraf na ba xàmmeef leen xam ne ñii jigéeni gor lañ ñee jigéeni jaam lañ ñi xam na tamit ñii jigéen ñu yiw lañ ñu ñi nga xam ne seen colaay dafa manqué ñi xam ne yiwuñu ñaareel ba timit danañ ca jëlee falaa yu zay na deefut loref leen mooy deefut tappaas leen góor gu bon maanaam du ñeme jigéen goo xam ne colaayam dafa yiw ba di ko ñemee tàppaas wa kaana nekk na laahu yàlla xafuuran di jéggalaa kon rahiman di yërëmaa kon de yàllay wax ne la in lam yantahi su fekkee daytalut al munaafiquuna munaafiqi yi ne maanaam wallaahi nag nga xam ne fii quluubihim ak yi nekk la seen xol ya maradun feebaru jigéen wal murjifuuna ak way wal ña fil madinati ci madina la nuxuri yannaka danaa xiirtal la bihim ca ñoom suma laa yu jaawiru na ko topp duñ dëkkaaleeg yow fiyaa ca dëkk ba illaa xallan lu dul diir bu gàtt mooy ñi gëstu seen mbir xam lañ doon rek maloo nii na mbir mu ñu nekk ñoo xam ne dañ leen a rëbb sori leen yërmande yàlla ay na maa suqiifoo fu ñu leen mën di fekkeef uqiifoo mbugaleef leen wa quttiloo bëri léeg rayeef taqati leen ak ray ci ñoom sunnatallaahi mu yoonam tabdilan maanaam ak wattee de yasaluka danañu laaj la naasu nit ña ani saatu ci bis penci waxal na innama ilmuha naka xam ak bis penci xendi laa nekk na fa yàlla de wa maa yudrika la fu ko waxee wa maa yudrika ci alquran rek du ko ko xamal waaye bu ne ko ko xamal moo tax xamulu ko ne ko laala laala saata amaan na bis penci takkoonu mu nekk xariban di agi jege ina laa naka yàlla laana sori na yërmande kaafirina xéeféer yi wa aada xadul na lahum ñaal leen sairan safara xaalidina yettana seen a béel fiyaa ca safara abadan faw laa yi juduna duñ fekkati wali yéen képp ku leen di ku leen dimbale wala nasiran du caakan ku leen fegal mbugalam yàlla ma yow ne def na wëlbati wu joowum seen tax mu ne fi naari safara yaquluuna ñu lay wax ne rabbana maanaam ya laytanaa yellante woon na ñun atax naa ñu topp a yàlla wa atax naa ñu topp rasula yontu bi kon tey ñu texe waaye nag wa qaaloo ñu ne rabbanaa yoo suñu borom innaa naka ñun atax naa toppoon nañ saadat naa suñ sang yii ñu ñuy réeral rek dañu jëmee ki seen bopp wa kubara ana ak ñu suñu màgg ñi fa addalu naa sànk nañu sa sabila wala si yoonu dëgg wa rabbanaa yow suñu borom aatihim yàlla nga jox leen deex fay na ñaari ful min al bi ci mbugal mi mbugalam seen réer ga ak liñ ñu réeral wala anhum yàlla nga rëbbu leen laxnan ak rëbbu kabiran gu màgg de yàlla ne kon nag perte nañ mu mel ni kon koo képp koo xamee da ngay réeral nit ñaari mbugal sa mbugalam réer ma sa mbugalam réeral nit ñi moo tax kon nit ñi topp la maanaam lu doy doy waar la soo leen jëmalee ci sa bopp mbaa nga jëmale leen ci say maam mbaa nga jëmalee leen ci sa bopp torox rek boo bëggee noppalu jëmalee leen ci yàlla rek wax leen li yàlla wax jiitu leen ci tere leen li yàlla tere te buñ la koy gis soo ko defee wàccoog ñoom aaya ji mi ngi ko wàccee ci ñi doon tuumaal yonentu yàlla Muusa saar waa ngi jeex Muusa ba muy nekk xale bu daan sangu dafa daan beru moom kenn yahud yi ñu bon lañ bu ñuy sangu ñoom ñëpp nekk benn place di sangu kenn ku nekk di gis sa awraay morom ñu ne am ah, Moussa mii dafa bëri tiitar rek dafa amee feebar bu nekk ci kanamam wax wax ju ñaaw yàlla dogal nag benn bis mu sangu wéet jël yéreem ya teg ko ci benn doj doj wan naaw ak yére ya ba gaa yi gis lañ gis ca moom ndeke dara amu ca ñoom nag ñu mujj rus lool ndeke lañu wax dara du ca dëgg moom la yàlla di wax nii moo tax ñeent tuumaal nañ leen yàlla seetal leen tuumaal nañu yuusufa ne dafa mooy yàlla setal ko ci wa shahida shahidun min ahliha tuumaal nañ yonentu yàlla maanaam sayyidatuna maryama ne dafa mooy yàlla setal ko ci yonentu yàlla ba may Iisa ne inni abdullahi ataani al kitaaba tuumaal nañ aïchatu ci mooy yàlla setal ko ci fukki laay ak juróom-ñaar ki suratu nuur tuumaal nañ Muusa yàlla setal ko ci aaya ji moom lay wax si nii moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina yéen gaa nga xam ne amanoo gëm nañ alquran laa takkoonoo bu leen nekk ànd ak seen yonentu këllësi na ñi nga xam ne ni mel ñi nga xam ne asaw dañoo loroon Moussa Moussa fa barraahu dañal na ko laahu yàlla mi maa qaalu ke lañ doon wax naan dafa ame feebar bu ñu tuddee aadarun wa kaana nekk na indallaahi fa yàlla wajiihan di borom daraja de yaa ay wàll yaa ay wàll si nga xam ne amono gëm nañ taqu na ngeen ragal laa wa waqulu ngeen wax qawlan wax saddan ju jub yuslih dana xéwénal lakum ñaa leen amalukum seen jëf yi wa yaxfir mu jéggal lakum ñaa leen zunubukum seen bàkkaar wa man yuti ku topp laaha yàlla wa rasulahu kooku faqad faase texe na san ak texe aziman gu màgg de aaya ju mujj ji mooy innaa naka ñun yàlla arad naa gaaral nañ amaanata a te mooy ak xilaafa ci kaw suuf ak takaalifu sharciya yi ala samawaat juróom-ñaari asamaan wal ardi wal jibaaleeg doj yi fa abay na bañ nañ an yaxmil nahaa ñi xenu ko wa asfaqa na jàq nañ min haa ca moom wa xamalahaa enu na ko insaanu suñ maam aadama innahu naka moom kaana nekk na xaluman di tooñaa kon jahulan di réeraa konde moo tax mu xenu ko su ko defee nag moom kenn moo ko xenu waaye li yuasiba ngir na mbugal laahu yàlla al munaafiqiina munaafiqiina yi yu góor ñi wal munaafiqaat ak munaafiqiina yu jigéen yi wal mushrikiin ak way bokkaale yu góor ñi wal mushrikaat yi wa yetuba mu nangu tub laahu yàlla al muminina wal muminaati wa kaan nekk na laahu yàlla xafuran di jéggalaa kon rahiman di yërëmaa kon de leen seen baaraam foofu kon amaana toongoog mooy sa euh, takaalifu sharciya yi yàlla togguñu joxoon na ko malaaka yi ñu joxe ngànta mu togg ko doj yi ñu joxe ngànta mu jox ko mala yi ñu joxe ngànta nit nag nangu koo xenu nit nag mi ngi ko nangoo xenoo ci ñaar réer ak tooñ waaye réer ak tooñ tamit mu baax ndax bu xamutoon du ko mën a xam bu réeru toon rek tooñu toon tamit du ko nangoo xenu waaye gisal bam bam nangu ba mboolee réer ak tooñ su ko defee xenu ko ci la jëlee lam amee lépp waaye nga dégg ci tamit ku ko nangoo toggoo jël julli ya te doo julli doo xoor doo joxe asaka yow yaa ngi bokk ca sax loo man jëwu lan ya cee ngay door a bokk réer nag ñaar la réere martabatu jëmmi yàlla ja te ñëpp ko réere loolu la Cheikh Tidiane wax ñaareel ga mooy réere maanaam xam gi nga xam ne mooy xam martabatul uluhiya ya te ko ku ko réere dem safara su ko defee kon nag loola la ñëpp réere moom moo indi maanaam jëwu lañ jooju mu def ko maanaam siratul mubalaga kon nag aayaat yi ma jaar daanaka jëlul sarha leer na jaaroon nañ ci yu mel ni moom dama doon profité pour bëgg ñu yegg ci saar wi saar wi jeex na tombeek waxtu wi jeex lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax in uridu ila al a mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu a salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu